mbokk yi mbaa jàmm ngeen yendoo ñu ngi leen di nuyu gërëm leen ci ànd bi ak télévision Futur Média seen yaram jàmm loolee la ñuy ñaan euh, xëy euh, yendu ba guddi te yëguloo benn métit jar na sant yàlla baat boobee euh, maa ngi koy wax boobu ba tey di leen ko baaxee balaa ngaa xam ni wér yaram a am solo Euh, nga tëdd feebar picc sax wala méttitu bëñ boo ko amee mu lor la euh, waxatumaak li nga xamante ni moo jur crise léegi mu def daanaka ay weer euh, bu ngeen fàttalikoo décembre la tàmbalee woon jógee bitim réew escale ci yeneen i dëkk yegg si Afrique ba jaar ba ñëw fi nga xamante ni moo di Sénégal muy coronavirus boobu nag ba tey dañoo mobiliser équipe yu télévision Futur Média effectif réduit ndax sàmm ak jàppale équipe yi nga xamante ni ñooy liggéey ngir di leen jox nga xamante ni moo mënta ñàkk ci wàllu programme bokk na ci euh, soirée bi ñu leen di proposé tey en direct ci télévision Futur Média samedi bale passé bu ngeen nañu euh, de fonds ba amoon presque milliard euh, tey itam dinañ leen defal bilan wu li xew samedi bale passé ci ndimbal goo xamee ni dañu ko yëkkati woon àndoon ci ak secteur privé bi ngir dimbalee ko gouvernement bu Sénégal ngir ñu xeex li nga xamante ni moo di coronavirus bi boobu nag ba tey ñu ngi àndandoo ak yéen ci combat bile ñu tuddee daan corona a sénégalais yi àndandoo ci ak euh, euh, autorité yi ngir lépp loo xamante ni jëm na euh, ci sensibilisation ñu taxaw ci respecter règle d'hygiène yeeg mesure barrière yi nga xamante ni jóge na ci ay borom xam saa yu ma xëyee li may préciser mooy jàpp leen ni décision yuy juddu du ay décision politique lépp a ngi jóge ministère de la santé ak organisation mondiale de la santé ay borom xam-xam saytu ko xool ba saytu xool ni comportement yi bu ñu ko respecté Euh, dinañu éviter piir éviter piir bi nag euh, daanaka ci la ñëpp dox euh, ndax bugguñu liy raam àgg ci ñag bi su boobaa dina metti pour ñun Sénégal wax ni dëkk yu mag yi ñuy ëpp moyen sax actuellement danoo jaaxle ak li nga xamante ni moo di coronavirus bi loolu defe naa dem na ba doon wax ju yàqu waaye nag ñun daañu jéem et ñu ngi jéem bopp ba tey ngir sensibiliser joxe ay information di leen accompagner en même temps à travers ay rendez yu exceptionnel ci télévision Futur Média mi nga xamante ni bopp ba tey euh, dafa jóg ngir daan li nga xamante ni moo di euh, coronavirus bi tey nag ñu euh, demaat ak yéen ci ay invités d'honneur des personnalités yoo xamante ni à tout de rôle dinañ leen fekk seen ay biir kër xam ngeen ni ngir kaaraange bopp ba tey ñun itam dañuy dox ci li tubaab tuddee télétravail loolu moo sabab tey Euh, daanaka invité yi ils seront pas avec moi je serai seul en sécurité ak équipe yi nga xamante ne ñoo nekk ci ginnaaw effectif bu réduit ma fàttaliwaat leen ko ngir jéem leen a gunge wétali leen et que euh, invité yooyu yëpp di ay personnalité ku ci nekk naa la fekk sa kër euh, bu ca kanamee bu ko defee ñu waxtaan ci sensibilisation ba noppi itam kenn ku ne wétali la yéen wétali leen ci télévision Futur Média dañuy tàmbali ak bilan wu tey bi c'est vrai que yéen ñëpp yëg ngeen ko puisque toute la journée télévision Futur Média donc fii ñu tollu tembe ak coronavirus bi la nga xam ne ñëpp a ko euh, ñëpp a mere ndax euh, ni muy euh, saax-saaxee doomu aadama yi ci àddina ay lim yu takku ci ay nit yuy faatu ñun nag fii ci Sénégal sant yàlla amuñu kaaw décès yàlla bu nu ko am waaye ñu ngi toll ci daanaka cent trente cas yoo xamante ni actuellement ñoom ñoo positif ci coronavirus bi am na dix-huit nit yoo xamante ni wér nañu ba ñu bisee biir kër et puis actuellement ñu ngi am 112 cas yoo xamante ni ñoo nekk sous sous traitement euh, donc affiche bi ngeen di gis moom la service digital bu groupe Futur Média di partagé euh, ci compte yi nga xamante ne am nañu ko ci réseaux sociaux yi pour permettre leen ngeen nekk au diapason de tout ce qui se passe ak évolution euh, li nga xamante ni moo di coronavirus bi daanaka moo lëmbee àddina et que tey kenn ku nekk jóg nga euh, ngir xeex te respecter li nga xamante ni moo jëm ci mesure barrière yi nga xamante ni boobu ba tey ñu ngi leen koy digal muy set gi raxas loxo yi boo dee sa xët nga sa xët ak sa conc loxo mën nga am masque nga takk ko euh, moytu lépp loo xamante ni euh, doon na dajaloo euh, ki ngay taxawal distance bi ak moom war naa mën a toll ci un mètre donc yooyu yëpp ay consignes la yoo xamante ni jot nañu ko et que bu nu ko respecté rek ñoom boroom xam-xam yi nee nañu feebar bi du law ku ne xam na ni nag ñun ñooy dem moo tax suñu dem yu bëri di indi feebar bi law et que actuellement Sénégal ñëpp a ngi góorlu ngir éviter li nga xamante ni moo di coronavirus bi. bu ko defee ñu leen di ñaanal guddi gu neex euh, ci euh, télévision Futur Média on sera avec vous on vous accompagnera gunge leen euh, parce que fi mu tollu tembe dëgg la ñun ñëpp paniqué nañu l'heure est grave mooy baat bi nga xamante ni borom xam-xam yaa ngi koy wax sànq rek d'ailleurs dégg ngeen waxtaan wi nga xamante ni Cheikh sekk na ko ak ki nga xamante ni moo di professeur Seydi artu na dànkaafu na sensibiliser na moom itam wax na ko bu ñu moytuwul lii ci ñag bi lay jëm waaye mën nañu ko éviter ci kaw yi nga xamante ni ni euh, ministère de la santé boobu ba tey mu ngi koy euh, joxe fii ci Sénégal itam seetlu nañu ni euh, y a pas autorité politique yi artistes yi porteur de voix yi ñoom ñëpp boobu ba tey ñu ngi jog ngir xool naka la ñuy xeexee li nga xamante ni moo di coronavirus bi à travers ay message à travers ay challenges un peu partout à travers le monde feebar bi nag li ci graw ñu fàttaliwaat leen ko faalewul buur faalewul baadoolo képp koo xamante ni ab doomu aadama nga nekk Chine nga nekk itali nga nekk États-Unis Sénégal Burkina Faso Côte d'Ivoire defe naa xeetu crise bi musta am wala bu musee amit euh, man fekkeewu ma ko euh, lii nag euh, jamono boo xamee ni la ñun ñëpp bu doon suñu sago duñu ko fekkee jamono boo xamee ni benn feebar rek benn virus mooy wër àddina bi ba ñëpp jaaxle muy lu doy waar loo xamante ni ñoom célébrité yooyu noonu kenn ku ci nekk ci wàll bi nga féete yaa ngi jéem ngir sensibiliser à travers ay live à travers ay vidéo ngir ñun ñëpp ñuy wéttalante ñun nag fii Sénégal ñu euh, ci confinement total ça risque d'être compliqué bu ñu ko amoon euh, waaye dëkk yu bëri actuellement dañ leen teree génn 24 heures sur 24 ils sont confinés chez eux euh, bu dee da ngaa bëgg génn sax il faut nga am kayit goo xamante ni mooy wane ni yow mën ngaa déplacé wu wala bu dee da ngaa bëgg a doxantoo sax ak sa xaj dangay bind ci kayit donc bu ñu demee ba àdduna toll noonu nga xamee ni heure bi garaaw na donc na ñëpp moytandiku sensibilisation du doy répétition Euh, pédagogique euh, la preuve boobu ba tey ñu ngi répété euh, sunu ay conseils di répété message yi nga xamante ni mu ngi jógee ci borom xam-xam yi et que ñun itam daañu jéem ba keroog crise bi di passé di leen sensibiliser on va démarrer par détendre atmosphère bi laata may fekki sama ay invités d'honneur ils vont m'inviter chez eux actuellement on sera tous en mode télétravail dinañu fekki Euh, ku mel ni Kumba euh, Gawlo on la retrouve chez elle euh, dans quelques minutes pour découvrir moom itam naka lay dundee couvre-feu bi c'est vrai que boobu ba tey mu ngi mobiliser li mu am yëpp ngir xeex tey sensibiliser ci li nga xamante ni moo di coronavirus bi y aura d'autres personnalités yoo xamante ni on les retrouvera chez eux pour ñoom itam ñu àndandoo ak ñun ci soirée bu spéciale bi ñu leen di proposer en direct ci télévision Futur Média ñii ñu ngi koy dund ak jaaxle ñi ci des ñu ngi koy dund Euh, un peu euh, ci côté bu xaw a euh, positif reetaan dégg naa ñu naan baax na mën na nëbb mën na aar nit ci euh, stress ak euh, panique on a vu depuis un moment partout ci réseaux sociaux yi on se partage euh, des video yoo xamante ni ay nit ñoo am nu ñuy dundee coronavirus bi ci façon boo xamante ni c'est un peu rigolo donc on a reçu quelques vidéos amateurs ñu concocter leen ko pour détendre tuuti atmosphère panique bi nga xamante ni moom la ñuy dund di ko dund ci kër yi ngeen koy dund seen ay biir kër bon c'est vrai heure bi nekkuñu ci heure caaxaan waaye baax na itam itam de temps en temps bu Chris tollee fii euh, ñu jéem a xool rek naka euh, la ñuy détendre atmosphère bi regardez euh, cette petite sélection de vidéos amateurs qu'on a reçues de la part de nos internautes qui sont un peu partout à travers le monde S'il vous plaît, restez chez vous. Le coronavirus, il est dehors. سوليف وراكي رايحة بنت علاه تروحي لبرا كاين المرض كاين الفيروس moi, je, s'il y a le virus, virus, je m'en fiche. J'ai envie d'attraper la virus, maman. Non, mais oh. Bon, allez, moi, je vais aller prendre les clés. Colonna. Hein? Colonna. Colonna. سلمي على بابا قالونا قالونا سلم عليه يلا عنك عنك نسلم عليه عمك كورونا اه جاي عمك نسلم عليه كان كورونا شو كان كورونا ما كنت عاجل يسلم عليه كان كورونا اجي يا صاحبي police yi wax dëgg yàlla dem nañ seen liggéey niñ leen ko sant woon waaye nag li leen di ñaan buñ dóoratee nit nañ ko bindalu këyit wuy wane ni dóor nañ ko ndax man naa daje gaa yi ñu ko kat day metti ñaari dóor day metti nañu bindal gaa yu kayit kun dóor ba pare nan la bindal aw kayit wuy wane ni dóor nañ la Sénégal yi dañoo xaw a dëgër bopp ay waay dégg ngeen teel a faru moins douze moins bi daal mooy ni may def nii toog sa biir kër defar sa giriyaat yu baax waaw soble bi soble bi baax na si torop nga bàyyi koy naa suñu benn bi boo toogee sa kër di lekka di naan corona bu toogee si mbedd mi lekkul naanu billaahi bu ko xiif di rey dina ñibbi wala mu dee. bonjour docteur. bonjour. je suis ma ma ma malade. tu souffrais de quoi déjà. de le co co quoi. co co co yegg si na Sénégal am na ay benn benn ay doomu Sénégal yoo xam ne am nga ko euh, ban message nga ci jàllale. Euh, man nañu kaa waaye télé bi man dama tiit te yenn journaliste yi sa genre gees sa kanam gi wu mel ni ñànk tàng ñeneen ñu sos rek lañuy man gis naa feebar bi yàlla rëbb na kale yee na feebar bi am na ak dëgg la am c'est vrai mais ay daala gis ña monté ña monté ay yeneen i kii yaa xamante ne léegi si dugal te pour pourtant feebar bi melul noonu. voilà c'est vrai que finalement euh, coronavirus bi euh, euh, ku nekk ak ni nga koy euh, ni nga koy dundee panique bi ku nekk ak ni nga koy dundee donc c'est des vidéos amateurs yoo xamante ni ñoo ngi ko jot ci sunu ay internautes et ñoom it ku nekk ak ni ngay dundee période bi la nga xamante ni période de confinement la am na ñoo xamante ni nee nañu confinement day dofloo nit sax et que ñoom actuellement danoo jaaxle fi mu tollu tembe mais bon yàlla baax na yàlla suñu borom sàmm ñu ñun ñëpp ba nga xamee ni dinañu mucc ci li nga xamante ni moo moo di euh, coronavirus bi restez chez vous on s'occupe du reste euh, ce sera notre phrase euh, tey ci guddi gi comme ça ñu mën leen wétali yéen ñi àndandoo ak ñun en direct ci télévision Futur Média ca kanam samedi ba le passé wax naa ko sànq def naa fi ab collecte de fonds boo xamante ne amoon nañu presque milliards beaucoup de millions yoo xamante ni secteur privé bi yëkkati woon nañu ko baaxe ko gouvernement bu Sénégal ci xeex gi ñuy xeex li nga xamante ni moo di coronavirus bi na ay nit yoo xamante ni ñu ngi yëkkati seen ay doole euh, ngir dugal ko euh, ci combat bi li nga xamante ni combat wu ñëpp la euh, l'heure est grave defe naa loolu baat bu yàqu la na ñëpp xam ni fi mu tollu tembe ku farluwul rek mën na ñu am ay jafe-jafe professeur yaa ngi koy wax scientifique yaa ngi koy wax nee nañu bu ñu góorgóorloo bu baax rek ba toog te bañ a génn bañ di déplacé wu di dox farata kese parce que ñun am nañu chance on peut rester ci liberté ba daanaka 20 heures Euh, à partir de vingt nag ñu toog suñuy kër ak couvre-feu bi euh, ba daanaka sub six heures du matin donc bu ñu nekkee ci biir kër yi euh, mën na noo wut lu nu wetal lu ci mel ni àndandoo ak ñun ci télévision Futur Média wala occuper suñu ay doom ak suñu ay njaboot loolee itam lu am solo la loo xamante ni mën ngeen cee bàyyi xel on va démarrer avec invité d'honneur yi tey ci télévision Futur Média ils sont nombreux Wally Seck on le retrouvera chez lui Fatou Guewel daañu ko fekk këram Viviane Kane euh, on la retrouvera chez elle elle est confinée euh, dinañ dem seeti ñoom Aïda Samb ak yeneen i personnalités yoo xamante ni actuellement pare nañu euh, pour wéttali leen tey ci guddi gi en direct ci télévision Futur Média puisque dañuy def li nga xamante ni moo di télé travail feebar bi nag rey na bërki Dembo Ndiaye Manu Di Bango je pense qu'on va en profiter rendre ko hommage Manu Di Bango nekkoon koo xamante ni ab icône la ci continent bi taxawaayam taxawaayu Youssou Ndour taxawaayam taxawaayu Salif Keita la euh, taxawaayam taxawaayu euh, waykat yu mag yi la icône la boo xamante ni euh, nekkul woon rek artiste wala saxophoniste bu Cameroun waaye saxophoniste la woon boo xamante ni baatam yeggoon na fu sori mu nekkoon ambassadeur u Afrique am na benn photo boo xamante ni war ngeen ko miin ab nit bu taxaw ci taxawaay bi ñoo ngi ko photo kaw mais daanaka taxawaay bi dafa nuru torop ak carte Afrique booba tang ci lañ doon def promotion bu euh, Air Afrique yéen a ngi fàttaliku Air Afrique donc Manu Dibango en tant qu'africain ba pare nuru ak carte Afrique moom la ñu jëloon pour mu def ko il a tellement fait euh, bu ngeen fàttaliko sol Makossa euh, moo nekkoon daanaka carte d'identité amoon na ci coow sax ak Michael Jackson tellement d'artistes ont repris li nga xamante ni moo di Makossa ou Saul Makossa bu Manu bango barki démb bi mu génnee àddina presque toutes les stars d'Afrique et du monde ñoom ñëpp jot nañu ko rendre hommage Youssou Ndour Angélique Kidjo Kumba Gawlo euh, ñoom ñëpp euh, jaaxle amoon mbetteel lool ci ko àddina euh, Manu bangoo moom tamit malheureusement coronavirus bii ñuy xeex tey moo ko faat am na woy Euh, boo xamante ni defoon na ko ak ki nga xamante ni moo di euh, Youssou Ndour euh, loolee itam du ñu ko fàtte donc Manu bangoo ñu ngi koy rendre hommage tey à travers cette soirée il fut un grand artiste repose en fait papa parce que artistes yëpp papa la ñu ko doon woowee c'était un papa pour eux c'était aussi koo xamante ni daanaka yóbbu na fu sori li nga xamante ni moo di culture africaine ñu koy jàll tamit Kumba euh, Gawlo Kumba Gawlo que nous allons retrouver tout de suite euh, chez elle elle est confinée couvre-feu bi tax euh, ñëpp toog seen ay biir kër Kumba Gawlo boobu ba tey mu ngi ci combat wuk li nga xamante ni moo di coronavirus bi mobiliser entreprise yi mu am muy rajo wala muy groupe de presse annulé lépp loo xamante ni amoon na ko comme programme ngir àndandoo ak sénégalais yi àndandoo ak africains yi ci xeexu coronavirus bi Kumba euh, Gawlo euh, ñu ngi lay nuyu merci d'être resté chez toi euh, ñu ngi lay ziar bu baax yow sunu invité d'honneur nga mais yow yaa ñu recevoir sa biir kër et ñu am ci mbégte lool tey exceptionnellement ci guddi gi en direct ci télévision Futur Média dama lay masawu d'abord ci génnuk àddina sa papa sa mag di Manu bango malheureusement coronavirus bi moo ko rey Kumba Gawlo waaw Pape Cheikh maa ngi lay nuyu man tamit di nuyu suñu yi nga xamante ni nii yëpp ñoo ñuy seetaan à travers la terre Sénégal diaspora bi mhm. di la massawu yow it di euh, jaale vraiment tout le corps artistique ndax xam nga manu moom ñëpp la demal mhm. moom personnellement dama amoon ak moom ay relation yu particulière mhm. ndax euh, maa fii la ma doon woowee maa Kumba koy woowee papa Manu parce que dama ko tax rusa rusa sàllawlu dama doon rusa jaar ci turam ndax it euh, âge am mm-hmm. ak li mu représenté ci musique bi mm-hmm. kon euh, vraiment le fait que mu dem euh, nekk na loo xamante ne ni lu diis ci artistes yi la mais lu diis aussi ci Afrique mm-hmm. manu mën naa ni mën naa ni ak guy la woon rek mm. musique africaine macha allah musique du monde ndax inspiré na ay génération yu bëri inspiré na it ay culture yu bëri effectivement it ay uh, artiste yu nekk yeneen waaso yu dul rek Afrique yu dul rek uh, ci continent ci réew ma mu dëkkoon mu di Cameroun mm-hmm. kon vraiment dañu ko war a wéy di sargal fi mu amee nag metti na mm. ndax uh, am ci waxtu woo xamante ni nii àddina bi yëpp dafa ni tekk mm-hmm. jafe yi bëri problème yi bëri mm-hmm. ba nekk fi mu ne nii li ñu naan sikk ma lakkandoo wallaay sikk ma lakkandoo voilà da ngay di tal sa bopp bu amoon ci yeneen i jamono defe naa ni ñëppay jug ba hommage yi ñu koy defal dina gën a fës ndax ñu ngi ko koy defal. Mm-hmm. hommage yi dina demee neneen nu dul nii. Mm-hmm. mais ak sunu borom waxtu wam ko bindee. Mm-hmm. ak jamono yam ko bindee ak situation yam ko bindee. donc ñu koy ñaanal rek yàlla xaare ko àjjana. amiin euh, li mu yàgg defal musique africaine musique du monde. lu yàlla fay ko ko. amiin. mu xippee àjjana te loolu it mooy wane gra gravité wopp ji nga xam ne mooy coronavirus. voilà alors coronavirus ab euh, jàngoro la boo xamante ni virus boo xamante ni euh, wax naa ko léegi faalewul buur faalewul baadoo la euh, ñu ngi ñuy wax ni doomu ren d'Angleterre bi Prince Charles am na ko premier ministre ba am na ko MHD ab woykat la am na ko tey manu di bango bokk na ci victime yi ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci faatu fi mu tollu tembe kumba yow da ngaa teel Mais l'heure est grave, Pape Cher. Mmh. L'heure est plus que grave. parce que xam nga euh, d'abord man li may wax sax mooy ndax mm-hmm. ñi nga cité léegi ñëpp ni am nañ ko mm-hmm. moo wone ma bëgg ñu xam ne coronavirus du wopp joo xam ne da nga ciy am gàcca déedéet ndax defe naa ne ñun africain dañu jël coronavirus ku ko am sax di nga ko ragal a wax wala nga rus koo wax wallahi naan damaa bañ ñu naan dama am corona mais am na wopp yoo xam ne ñoo gën a garaaw corona mm-hmm. VIH mi ngi fi. Mhm. nit ki bu ko amee fi mu ne nii dañ ko daan taxé lu nekk naan lan moo tax mu am ko dafa dëng wala dafa lii wala dafa laa. Mhm. ndax boo dee xool ay tempsam bi mu fi amee ni mu garaawe woon ak ba léegi noonu la garaawe mhm. kon sëgëm coronavirus dafa nekk di dal yenn réew occidentaux yi te duñu am kersa wax ko. dinañu am sens de responsabilité wax ko. ak honnêteté kon ñun africain bu ñu dalee nañu am honnêteté di ko wax te bañ a xam ne du gàcca bërki démb rek sa càmmin giraas yi loolu la def mais feebar la boo xamante ni nii loolu ni mu la mën a dalee la mën a dalee keneen ak keneen ak keneen te feebar la boo xam ne doo xam ku muy dal wallahi ndax mooy tax ma ne man coronavirus et une maladie démocrate mm-hmm. seetul yow ab roi nga déedéet milliardaire nga seetul ab pauvre nga seetul ab star mondial nga seetul kenn nga moom nit daal lay seet ka mu war a dal mu ñëw dal kon nag na nit yi déjà am cette conscience là. Mhm. humaine ah humaine maanaam ci sa xol cette conscience responsable. Mhm. bu feebar boo xamante nii gàcce la ba nga di ci rus ba mu lay dal parce que man gis naa ci réew mi ñoo xam ne nee nañu sax da leen a dal dañ doon daw di làqatu pour ñu leen ñu di leen woo di leen dénoncer. wallaahi muy lu garaaw. conscience loolu c'est de l'inconscience totale. waaw waaw ndax mën nga infecté ña nga xamante ni nii yëpp ñoo rawatina sax ay mbokk donc dafa nekk loo xamante ni nii. bu la mhm. dalee. ak conscience bu tax nga daal di dem déclaré wu ni man kat damaa ragal ni damaa dal. Uh-huh. ne serait pour sauver des vies. Uh-huh. mais pas bu nëbb donc du du gàcce déjà nañu xam ne du gàcce. Uh-huh. voilà. voilà euh, euh, actuellement euh, ñëpp jóg yéen porteur de voix yi. kilifa yi nga xamante ni ràññee nañu leen euh, du seen dëkk rek lañ leen ràññee tey jii euh, euh, ku ne Kumba Gawlo ku ne Oumou Sangaré ku ne Angélique Kidjo ku ne Rokia Traoré xam ne ay jigéen ngeen yoo xamante ni kenn ku ci nekk ci benn dëkk Afrique nga fekk baax waaye dangeen ngeen def mobilisation bu doy waar par exemple yow Kumba Gawlo bërki démb rek ñu ngi gis sa message ci sa ay chaine ci réseaux sociaux yi on l'a même diffusé sur télévision Futur Média li nga njëkk a def mooy jël lépp loo xamante ni muy sa rajo sa groupe de presse mettre ko à disposition euh, des autorités euh, de ce pays euh, pour ñuy sensibiliser ci ay messages yu am solo yoo xamante ni dina jëriñ ba noppi itam seen ay tournée ak sa festival yooyu yëpp nga annulé ko ndax coronavirus bi lan moo tax nga jóge ak xeex boobu Coumba Gawlo waaw loolu Pape Cheikh yoon la ndax loo xamante ni nii àdduna bi yëpp la taxawal mm-hmm. loo xam ne àdduna yëpp amul réew moo xamante ni ni fi ne nii neewu la moom am na ciy jafe-jafe mm-hmm. amul benn xeet boo xam ne neewu la am na ci ay jafe-jafe mm-hmm. kon loolu defe naa ni su xës xëyee ni xës ci sa biir mbokk mm-hmm. dal at li nga war a def mooy yow it da ngay taxaw bokk ci symbiose mondiale bi symbiose nationale bi la solidarité nationale parce que amoo leneen looy def ndax boo defee activité sax damay laaj kan nga koy defal ak nga koy tëggee ndax fi mu ne nii nit ñi tal nañu leneen lu dul di dégg kuy tëgg kuy way ak kuy fecc hmm. ndax fi ne nit ñi li ñu tal mooy seen sam ak nu ci mën a génnee ak nopp ji nu mën a mobiliser woo tous ensemble hmm. pour mën cee génn hmm. te loolu man li nga xam ne pour man mooy sama conscience citoyenne ndax xamante ni nii da ngay euh, euh, euh, dem ci yeneeni réew ña woo te ña la woo ay kilifa yeneen réew la te dëkkoo fa tur dong ak soxla sa image soxla sa jëmm ndax xam ne yow panafricain nga ndax sa tur weesu na sam réew mm-hmm. sa expertise ak sa expérience ak sa notoriété nga di leen ko jox mm-hmm. ci tem ak ci yeneen i jafe ànd ci ak waa réew mooma di ca liggéey mm-hmm. normalement problème bu mel nii bu amee ci sam réew la nga war a def rek mooy yawit topp la nga xamante ni nii mooy situation ba maanaam arrêté say activité pour mën xeex boobu ndax loolu mooy symbiose nationale te loolu lan soxla moment nekk ak lan loolu moo waral it effectivement comme ni nga ko waxee. Mhm. suñu programme yëpp ñu dakkal ko. Mhm. ndax euh, le vingt neuf mars bi passé man waroon naa tëgg euh, fële ca euh, Boaké en Côte d'Ivoire. Mhm. le du sept au onze avril moo nekkoon troisième édition suñu festival international chant des Linguères. dañ koy def at mu jot pour mbirum jigéen ñi. le dix huit dix neuf vingt et un ña nga waroon a dem en tournée au Togo à Lomé. bi arrêté vingt neuf trente trente et mais mai Guinée Conakry moo waral temps yëpp ma doon nekk Guinée Conakry. Guinée effectivement gis nañ la fa. Mhm. ak fondation de la première dame Diéné Kaba Condé. Mhm. cinq juin 7 juin 8 juin ñu ngi doon Niger. Mhm. ak yeneen ak xam su ma ko limee sax duñ fi jugee. mais xam nga loolu lépp dëgg la am na solo. ndax ci sama liggéey muy man muy beneen artiste bu mu doonoon. dëgg ay avantages. Mm-hmm. Mm-hmm. indil ma ay financier financiers. indil visibilité indil ma popularité accroître sama notoriété. Mm-hmm. mais wér gu yaram yi doomu aadama yi war a wér. ak mu war a xeex euh, problème bi nga xam ne moo dal àdduna yëpp mu di coronavirus. di jafe-jafe crise mondiale la. voilà ak jàmm doomi aadama yi. loolu ëpp solo lépp lu ma mën a am ci beneen programme. di wolof di wax Pape Cheikh naan bala nga naan naan ne fa. waaw bala nga naan naam da fay ne mhm. kii bu nu demoon di defi programme yi te wéruñu defe naa ni fa lay gën a méttee ndax lañ fay gañe yëpp dinañ ko fajoo wallaay njëriñ loo fekkee voilà te lu ci nekk rek bu ñëwee ci jamono ju nekk mhm. dafa waral te lu ci nekk bu ñëwee da ngay fexe xool mhm. situation bu laaj nga fonctionné wu nag ak situation ba man nag dama nekk citoyenne sénégalaise sama réew gëm sama réew fonk sama réew di xeex ngir sama réew très bien waaye africain ba mhm. lépp lu xew ci Afrique ak lu mu mën a doon mhm. ci yoon doon buñ ma ca woowee ma ñëw ca rawatina nag sama réew te it bàyyi ci say oom mhm. te yeneeni réew laay dem di joxe sama euh, tur ay autorité muy ay chef d'état wala ay première dame di ma fa solicité ak ay institution may joxe sama xam-xam di joxe sama tur di joxe sama image kon sëgam foofu laa ko mën a def asamaak sama réew kon li ma def pour man yoon la très bien loo xamante ni nii damay wut ñu di ma ca gërëm du loo xam ne damay wut ñu di ma ca sant du loo xam ne di ca am lu ma cay xaar xaaruma ca leen mm-hmm. ko def rek ndax damaa war a def li ma def ndax fii laa dëkk mm-hmm. fii la samay nekk fii la sama askan nekk fii la mm-hmm. samay xeet nekk te it nag fii la sama entreprise nekk samay emploi ak samay nit moo waral ku ñu dakkal ko rek ndax loolu mooy yoon ak it jël li nga xamante ni ni moom laa am effectivement muy ressource muy sama groupe muy sama rajo ñu di communication saa su ne ndax boo déglu boo dégloo FM FM. Mhm. chaque temps def nañu de la communication sur toutes les langues. en mhm. matière de stratégie communication. voilà parce que parce que doguma la j'ai vu que dajale nga ay bambara dajale nga ay joola dajale nga ay tukuleur ñoom ñëpp euh, mobiliser wu da nga bëgg a yaatal sensibilisation bi c'est ça man j'ai écouté tout à l'heure parce que parce que bu amee. Mhm. fexe société bi ñëpp ku ci nekk dégg message. c'est bien ça. couche société bi ku ci nekk fa nga nekk nga comprendre message. Sénégal mhm. dafa nekk réew mu yaatu moo xam ne du ay wolof rek ñoo fi ne. dëgg la dafa nekk am ay wolof. Mhm. xëy na nag làng bu ci nekk ka koy làkk dégg na wolof. Mhm. waaye boo ko ko waxee ca làngam ca kàllaamaam. day tax ko approprié wu def ko message yu boppam xam ne moom it boole nañ ko ci et puis mu dégg ko ca la mu jud la mu nàmp nàmp juddoo ko. waral ñun ci biir rajo bi. à chaque fois chaque trente minutes ñu ngi jaarale message sur le coronavirus de sensibilisation coronavirus séeréer mhm. mhm. jàllale joola mhm. jàllale euh, mankaañ jàllale pël jàllale ko vraiment dans tous les dialectes yi nga xamante ni nii moo nekk ci réew mi pour que biir Sénégal des profondeurs te déggul tubaab te sax mosula ñëw Sénégal moom mosula ñëw waaw donc euh, euh, Coumba Gawlo qui va continuer euh, on est en train de ñu ngi koy déglu nii ci ay kàddu yu am solo yoo xamante ni wax na ko en direct de chez elle ci taxawaayam ci li nga xamante ni moo di coronavirus bi voilà réseau bi xam naa moo moo mooy daw coronavirus bi <laughs> voilà Kumba Gawlo euh, euh, voilà c'est un problème de réseau euh, certainement télétravail bi nag loolu moo tax mu xaw a metti tuuti mais bu fekkee lépp yemb na ci ginnaaw rek ñu àggali bu ko defee mu wax ñu naka lay aggalee combat wam wax naa ko sànq elle a annulé beaucoup de ses de ses activités et puis mobiliser lép loo xamante ni am na ko ngir sensibiliser sénégalais yi parce que heure bi heure sensibilisation la l'heure est grave mooy baat bi nga xamante ni boobu ba tey yéen a ngi koy dégg et que euh, muy baat bu xaw a doy boo xamante ni saa yu ngeen ko déggee ci crise rek euh, war ngeen a tiit euh, ñun nag bëgg nañu gunge leen ba nga xamee ni ci tàng gi dina wàññeeku waaye bu mu wàññeeku ba ñu bañ a fàggandiku ci digal yi nga xamante ni moo jóge ci borom xam-xam yi organisation mondiale de la santé ministère de la santé et de l'action sociale autorité yi nga xamante ni dem nañu ba déclarer li tubaab tuddee état d'urgence nga xam ne ni saa yu ñu ko déclarer ci dëkk rek loolu mooy wane ni cas na Euh, état d'urgence nag bu juddoo ci dëkk daanaka ñun citoyens yi euh, suñu ay liberté dafay wàññeeku am na yu bëri yoo xamante ni dootuñu ko mënati def et que lépp rek dafay jóge ci autorité yi donc ñoom célébrité yi personnalité yi loolee la ñu comprendre ba euh, teg seen i activité ngir àndandoo ak sénégalais yi ci combat wuk xeex coronavirus bi Kumba Gawlo voilà c'est un problème de réseau certainement wax naa ko sànq xam naa réseau bi mooy mooy xeex ak coronavirus bi ce sont les aléas du direct. c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai. waaw yaa ngi nekkoon ci point bu am solo. <laughs> Uh-huh. et je vous parce que ça c'est une initiative. merci. voilà li ma doon wax mooy donc xam nga langue yooyu yëpp bu fekkente ni nii parce que ci loolu lañ doon wax. Mm-hmm. def nañ ko ci kàllama yooyu yëpp day tax société bi ñëpp comprendre population mm-hmm. yëpp comprendre ndax biir Sénégal des profondeurs am na ñoo xam ne boo leen seetee dañ la naan kañ nga jóge Sénégal parce que ñoom fàtt nañ ni ñoom ci biir Sénégal lañ dëkk. kon ça veut dire ñooñu ñu ngi dund ca seen monde di dund leneen kon nag looloo waral ñun en interne ñu di ci li dans toutes les langues te loolu lu am solo la loo xam ne war nañ ko gën a def pour gën a conscientiser nit yi parce que man dama ragal ni Pape Cheikh am na ñoo xamante ni nii comprendre lu ñu ni feebar bi dafa exister te lu am la am na it ñoo xamante ni nii dañu am am inconférence wala feebar bi mm-hmm. ndax jar na ñu leen woon ñi nga xam ne ñoom la dal mm-hmm. ba ñu ak nañuy souffriree mhm. ak na mu parce que nit it won ko mu gis mhm. am na ñoo xamante ni nii man su ma génnee gis ci mbedd mi xale yi di fubal ah. gis yenn conscience damay ne ñii dañu xamul te loolu lépp nag mi ngi jar communication moo nañu gën a yokk ah. communication ak sensibilisation da ngay tiit sax da ngay tiit sax wallahi mhm. da ngay sax tiit boo gisee xale yi boo gisee inconscience bi nga xamante ni moo am ci dëkk bi euh, surtout bëccëg bi j'ai même vu euh, ay nit yoo xamante ni nee ñu euh, xanaa feebar bi du dox bëccëg et pourtant feebar bi vingt 24 heures sur 24 lay dox xëj na bu ñu defoon confinement total dina metti donc yow actuellement lan ngay wax njaboot yi mère de famille yi c'est vrai war nañu cool comme ni nga ko wooyee woon mais dañoo war a respecter mesure d'urgence yi mesure yi nga xamante ni ay mesure barrière la ñu ko tuddee toog seen ay biir kër parce que ku ci toogul sa biir kër feebar bi mën na laa dal kumba Demba Gawlo waaw mais seen intérêt la parce que man Pape Cheikh mhm. ma mënula comprendre mooy kaay dund ma di la protéger loolu kenn mus koo gis kaay dund ma di la protéger waaw kaay dund pour nga dund dong dama ciy xeex ak yow <laughs> dëgg la de man mënuma ko comprendre dëgg la de parce que a ah, ku nekk war ngaa bëgg quand même dund wér gudd wallahi waaw te kon am na loo xamante nit ñi su ko le président de la république defee ma di saisir d'ailleurs opportunité bi pour féliciter ko encourager ko mhm. naa ni vraiment liggéey na liggéey bu rafet ci wopp ji bi mu duggee euh, Sénégal ba tey. effectivement organisation en termes de synergie en termes de rassemblement. Mm-hmm. parce que yu bu amee euh, comme nu ma koy faral di waxee y' a aucun autre intérêt euh, qui prime y' a aucun intérêt autre qui prime que l' à part l' intérêt sénégalais. Mm-hmm. national. Mm-hmm. donc mobilisation autour de l' essentiel. nga xamante ni pour woo parti bu ci nekk. woo pàccu askan wi kenn ku ci nekk mhm. woo kenn nekk jox la sa nga joxe sa xalaat ñu waxtaan ceeg yow sensibiliser la nga dem sensibiliser say ñooñ mhm. lu am solo la muy kilifa diine yi di kilifa caada yi mhm. euh, di di communicateur traditionnel yi di jigéen surtout ci biir kër yi loolu lu am solo la donc mooy félicité vraiment ci initiative bi ak liggéey fédérateur bi nga xamante ni ngi koy liggéey boobu ba tey parce que loolu moo am solo parce que c'est un problème mondial voire national pour ce qui concerne notre pays. bi ngeen jaaxlee ci bi ngeen jaaxlee ci feebaru euh, euh, Sida yéen euh, star yu mag yi yow Manu Dibango Youssou Ndour da ngeen tuddee woon seen bopp des tam-tam d'Afrique est-ce que yow ci wàll bi nga féete pare nga comme noonu ngay def tout le temps génne woy je vu que am na challenge boo xam ni déjà def nga ko et que ñëpp a ciy topp di àndandoo ak yow ca na nga ko waxee est-ce que pare nga comme star africaine yëpp. Euh, gën a yokk sensibilisation bi à travers peut-être une chanson Coumba Gawlo mais man Pape Cheikh pare naa bu yàgg mm-hmm. man lu am concerné Afrique lu am concerné sama réew dama cay pare bu yàgg te duma xaar ku ma woo mm-hmm. ndax ba ministère di de la culture di yónnee di woote ci sama staff ni dafa am lu ñuy def bëggoon ma caa boole pour ma def annonce dañu ne leen Coumba Gawlo def na annonce am bu yàgg dem leen dugg ca chaîne YouTube ba ngeen gis ko loolu moo wane ne man du ma xaar ñu may woo damay xam li nga xam ni moom laa war a def. Mm-hmm. parce que moo tere sama te moo gën ci réew mi en tant que ambassadrice de mon pays. Mm-hmm. en tant que drapeau de mon mais mm-hmm. aussi en tant que citoyen. sénégalais de mon pays pour mon pays ma def ko donc ce qui fait man lépp lu ñu ma woo. na fekk na ma pare ba def laata ñu may woo ndax du xaar ku ma woo ma xaar ku gërëm te xaar ku ma sollicité. buñ ma ma def buñ ma woowut ma def parce que lii mbirum Sénégal la. te mbirum daal am réew boo dëkkee ci réew doo xaar ñu lay woo wala ñu lay wax da nga def la nga ca mën mhm. ci niveau voilà kon xamante ni war naa ko cee def déjà à part li ma jot a def mhm. pare di ko def parce que loolu yàgg naa ko def voilà j'aimerais ko ci li nga xamante ni nii loolu nga doon wax tout à l'heure mhm. am solo la mooy conscience bi nga xamante ni loolu la nit ñi war am ak conscientisation bi que dañu nekkoon am solo dëgg la nga xam ne dem nañu ba di leen pour ñu dund sensibilisation bi ci biir kër yi mhm. ma bëgg sénégalais yi conscient xam ne su ñu demee bay def ay état d'urgence ay ay ak ay couvre-feu mhm. pour suivre suivre la mouvance mondiale mhm. ndax boo dee xool àddina bi tey ñëpp ñu ngi confiné wu ñu naan la toogal say kër ñu amoon seeni projet ñëpp projet yi yàqu wallaay projet yëpp yàqu taxaw nañu xamatoo sax foo jëm ndax yow bu fekkee tëj nañu frontière terrestre tëj frontière aérienne fan nga jëm. dëgg la de dëgg la de. mooy ku ne réew mu ne fi mu ne sa bopp nga tal ak sa waa mbokk ak sa waa réew ak sa njaboot. Mm-hmm, mm-hmm. kon ñu xam ne couvre feu bu ñu def pour di leen aar di leen sàmm. Mm-hmm. pour jàppale leen la. xam ne ñoom seen jëmmi bopp ñoo waroon a xam ne lii kat day raye te woppu ñu garaaw la man fu waxtu ba jotee du ma génn. waaye boo demee bay def ay bras de fer ak ay forces de l'ordre. intérêt la mhm. loolu mooy dafay am benn conscience inconscience boo xamante ni baaxul et en ce moment Pape Cheikh mhm. moi à la conscience collective mhm. responsabilité et à l'engagement collectif am sa rôle lan la sa cër lan la nga def ko nga def ko matal ko non seulement pour sauver des vie sauver sa bopp d'abord mbokk sauver sa dëkk askan sauver ña ngay liggéeyal ca bureau ba nit ñi it honnête Europe rek am sa feebar dem ci réew moo xamante ni am nañ ko nga ñëw di kotuwaay nit ña ca entreprise ba wala ña ca kër ga wala feneen. Mhm. yaa ngi def ni bu amee c'est de l'inconscience. effectivement effectivement. responsable en ce moment. ci mhm. suñu société ak suñu biir nekk voilà euh, gis nañu euh, pour finir euh, balaa ñu lay gërëm bàyyi la nga àggali confinement ci biir kër gi am na challenge boo xamante ni lancé nga ko semaine bi et qu'on a vu daanaka ñëpp a ngi koy reprendre j'aimerais qu'on regarde ensemble challenge bu Kumba Gawlo ci daan coronavirus regardez ce qu'elle a Oh Allah sàmmañu ci coronavirus raxasal sa loxo saabu ba mu set wala liquide antiseptique moytu joxe loxo yu bari bari bari muccu ci coronavirus restez chez stay at home please toog leen seen kër voilà toog leen seen kër restez chez vous nous on s'occupe du reste exactement noonu la ñu koy defee ci télévision ouais. Média euh, Kumba Gawlo merci on est très content donc challenge disponible sur internet comme le font toutes les stars Youssou Ndour def na ko euh, woykat yu mag yi def nañu ko euh, footballeurs yi actuellement ñu ngi def challenge boo xamante ni euh, da ngay jël euh, mouchoir yooyu noonu euh, ngir def ko tël ko ci sa biir kër pour wane ni toog nga sa kër donc actuellement baat bi ak directive yi bu ñu ko respecté ba pare ni ñëpp toog seen ay biir kër Restez chez vous, nous on s'occupe du reste. Coumba Gawlo, merci d'être resté chez toi. Peut-être pour finir, un message en français euh, pour euh, euh, ces personnes qui ne comprennent pas notre langue et qui vivent chez nous. Mm-hmm. waaw Pape Cheikh avant ma bëggoon wax rek ne na Sénégalais yëpp gën a déggoo. Mhm. gën a jàppoo gën mhm. même lu positif maa wax sama benn sœur honorable député Moussa Diakhaté naan ko confinement bi ak rester chez vous c'est positif de. wallaay c'est positif parce bu ñu wàccee léegi ñu ngi ci biir kër yi. wallaay bi leen gis donc ñu ngi leen di gis ñu ngi reer ensemble te léeg-léeg daaw reer ak sa njaboot kon il faut voir le bon côté des choses dans toutes choses. tout à fait te na ci lu positif donc vraiment ma leen di encourager yéen aussi à TFM. ci seen Coumba. voilà di la yow ci sa ci sa liggéey. ak sa taxaw Pastef. merci. ñaan Sénégal yàlla yokk fi jàmm. amiin amiin. diine yi ñu wéy di ñaan pour que vraiment yàlla muccal ñu ci feebar bi. allahumma amiin. aussi mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo war a gën a mobiliser wu pour am conscience responsable te Pape mhm. sama maam daan wax lu am solo. Mhm. sama maam danaan wax naan wopp koom la. Mhm. te borom ko. wopp. koom la. te nit xamu ko. Ah. te ba ko xam mu feebar. bala mu ko xam mu woo wallaahi ndax tey jii boo ko dee xool xoolal situation bi ñuy dund suñu koom-koom yépp dem na wallaahi wallaahi fajoo suñu alal mm. jotoon a am léegi ña koy économiser ndax xamuñu trois mois yi di ñëw nan lay deme kenn xamul kenn liggéeyatul mhm. jaboot ya jaay ca marché ba nga xam ne dañuy jaay ba midi bu midee ñu am tuuti jox seen doom ne ko acca dawal taal añ ñooñu amatuñu ko mhm. ñëpp ne kon wopp ak koom la mhm. ñëpp ñaan yàlla wér gi ndax wér gi yaram moo ëpp solo. Mhm. waaw na nit ñi fexe am wér ndax wér moom koom-koom bu am solo. te balaa ngay xam ni wér am solo sax nga tëdd nga tëdd feebar donc yàlla na suñu borom may ñëpp wér. Ah. képp koo xamante ni tëdd nga euh, nga euh, jóg ci li nga xamante ni moo di euh, coronavirus bi li peut-être on finit très rapidement en français Coumba Gawlo. alors moi ce que je voudrais dire Pape Cheikh c'est avant tout vous féliciter de l'initiative.

pense qu'aujourd'hui, pour euh, s'en sortir de cette maladie, il est primordial que la population sénégalaise puisse vraiment respecter les règles d'hygiène. Uh mm-hmm. -huh. Les règles d'hygiène, comme le disent assez régulièrement, la prévention euh, qui se passe, que l'on montre tous les jours, que la population sénégalaise puisse s'unir davantage en respectant les règles aussi de confinement. Mm-hmm. Parce que constate, c'est depuis quelques jours qu'il y a l'état d'urgence qui a été instauré par le chef de mhm. Il y a des personnes qui essaient d'entraver cette règle-là. Et pour moi, je le trouve injuste pour la simple bonne raison que cette règle a été uniquement mise en place pour nous préserver, nous, mhm. pour nous protéger. Mmh. en cela mhm. et une autre vision qu'une sorte de contrôle policière ou d'empêchement de, de, de, vivre ou de, de, nous priver de notre, de notre liberté. Mmh. Cela va au-delà de cela. Mhm. C'est pour nous protéger parce que cette maladie-là est une maladie qui circule. Mmh. C'est une maladie qui peut, qui peut toucher n'importe qui, qui peut te toucher toi, qui peut me qui peut toucher, toucher ma mère, mes enfants. Et ce n'est pas écrit sur le front de quiconque nous sommes victimes de cette maladie. Et c'est pour nous préserver et freiner, euh, comment dirais-je, Euh, euh, euh, l'évolution de cette maladie mm -hmm. personne travers qu'il est important de se confiner. D'accord. Et la raison pour laquelle j'en appelle à la conscience collective et citoyenne, mm à la solidarité, mais aussi à la sensibilisation de nos guides religieux, qu'ils puissent parler à, leur, à, leur, à leurs disciples, mhm. puisque chez nous, connaît la valeur et l'importance de la religion. Mhm. Il a ton père t'interdise quelque chose, tu ne l'écoutes pas, mais il arrive que ton marabout de l'autre côté t'interdise la même chose, tu le fais, tu l'obéis en disant c'est mon marabout qui m'a demandé de le faire. Tout à fait. C'est pour vous dire l'importance de la parole de nos guides religieux. Mhm. Et aujourd'hui, ce qu'il faut Cher, avec cette maladie, c'est que le contexte africain est très différent du contexte occidental. Mhm. Nous, en Afrique, nous avons nous n'avons pas les mêmes conditions de vie. Mmh. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si cette maladie arrivait à, à, euh, euh, à, comment à entrer dans les daras ou dans les écoles coraniques, ce serait une catastrophe. Mmh. Il est important que chacun, dans son domaine d'intervention ou dans son lieu de vie, mm-hmm. puisse mmh. respecter les règles de propreté, mmh. mais les règles aussi de confinement instaurées par l'État du Sénégal. Et je aussi pour finir Euh, dire qu'avec plaisir, comme je l'ai dit tout à l'heure, et avec conscience citoyenne, ouais. euh, mis, je me suis mise à la disposition de mon pays. Mm -hmm. J'ai mis à disposition de mon pays aussi euh, tous mes, comment dirais-je, toutes mes infrastructures, ou en tout cas tout mon groupe, mm -hmm. que ce soit radio, que ce soit mon image, que ce soit euh, mon nom et ma notoriété, mon expertise et mon expérience, voilà. à contribuer à cette sensibilisation sur cette maladie en direction des populations. Voilà. Et si vous continuez à faire quoi que ce soit, j'en serai profondément honoré, Pape Cher. Parfait. Je vous remercie et je vous encourage et que Dieu bénisse le Sénégal. Allahumma amin. merci Koumba Gawlo on est très content on a passé du bon temps euh, avec vous euh, xam naa ni tey boo amoon euh, ab guitare wala orchestre nekk sa ginnaaw di nga ñu woyal cool parce que am na moment yoo xamante ni ku ci toll quand même la war mooy nga cool soo kuulee rek yoon wi nga war a jaar dina gën a leer et on espère que yoon wi dina leer ba ñu génn ci crise du coronavirus bi merci beaucoup Koumba Gawlo moi Pape Cheikh. on est content kontaan nañu ñu ngi lay gërëm bu baax ci disponibilité bi e merci d'être resté chez toi comme Coumba Gawlo restez chez vous nous on s'occupe euh, du reste c'est vrai que tonton Mag nga ñu tegal ci suuf euh, peut-être cool bi c'est une belle chanson parce que euh, musique bi itam du ko yàq on a fait une petite sélection boo xamante ni de très belles chansons yoo xam ne ni dinañ leen ko tegal au fur et à mesure ñuy dem ci guddi gi exactement 22h49 mooy doog a jot si vous nous rejoignez ñu ngi leen di ñaanalaat guddi gu neex ci télévision Média crise corona coronavirus bi oblige euh, chaque samedi soir euh, ñu leen di gunge euh, ci façon boo xamante ni di ngeen mën a am ay messages yu am solo yoo xamante ni c'est des message de sensibilisation donc merci encore de rester chez parce que loolu mooy consigne bi consigne boo xam ni ñëpp ko war a respecter loolee Coumba Gawlo Seck dëggal na ko y a d'autres personnalités yoo xamante ni à tour de rôle dinañ leen fekk seen ay biir kër bu ko defee ñoom itam ñu àndandoo ak ñun ci guddi nga xamante ñun ñooy nekk ay invité d'honneur ci seen ay biir kër parce que ñun dañu bëgg ngeen toog seen ay biir kër et nous on va euh, s'occuper euh, du reste sànq maa ngi leen doon fàttali euh, samedi dernier li nga xamante ni moo fi amoon àndoon nañu ak secteur privé bi amoon nañu daanaka xaalis bu takku boo xamante ni moo nekkoon jàppandaluk secteur privé bi ci xeexuk coronavirus bi tey dañoo tàmbali rek commencé jot ay kilifa yoo xamante ni euh, dañuy wéy di jàppale secteur privé bi di dugal seen i yoxo euh, ci li nga xamante ni moo jëm ci euh, combat wu coronavirus bi je viens d'abord de d'ailleurs de recevoir ab yóbbante boo xamante ni mu ngi jóge ci kilifa goo xam ni kenn dootul naatable taxawaayam ci réew mi di Babacar Ngom Babacar Ngom nag doon koo xamee ni defe naa exemple la pour Sénégal yëpp fi mu jógee fi mu jaar ak li mu doon ci réew mi loolee euh, exemple la bu ñëppi waxtaane da ngay gis xale euh, bu ci bëgg tekki sax euh, liñ lay wax mooy defal ni Pape Babacar Ngom Babacar Ngom borom Sedima Babacar Ngom ku ne xam na taxawaayam ci secteur privé bi xam ngeen ni samedi dernier waxoon na ni day joxe montant bu toll ci vingt millions finalement tey ci samedi bi ci guddi gi loxoom laa njëkk a jot nee na dina joxe teg ci table ji somme bu toll ci cent millions su ma amoon public ne leen tàccu leen mais malheureusement euh, comme man itam dama confo confiné wu ci euh, ci euh, plateau bi donc moom Babacar Ngom j'attends encore ci ginnaaw équipe yi ñu précisel ma bi nga xamante ni moom la joxe donc somme bi li mu teg ci table ji mu ngi toll ci téeméeri million cent millions euh, mooy li nga xamante ni léegi nii euh, Babacar Ngom euh, joxe na ko ngir soutenir secteur privé bi ci seen jàppandal ci xeexu coronavirus bi yenn saa yu ñu tàmbali xeetu collecte de fonds yi ak ay un million deux million waaye tey defe naa lii Babacar Ngom def mënuma lu dul bëgg ci ndax saguk télévision Futur Média la nuyoo rek salaamaaleykum man toog man kese toog euh, mu euh, joxe euh, montant bu ni tollu te samedi bële passé defoon na promesse de don bu tollu ci vingt millions waaye Babacar Ngom Sedima joxe na léegi nii enveloppe bu tollu ci cent millions muy lii dolleeku ci somme bi ñu amoon keroog te ma wax sànq ni daanaka yeggoon na ci milliards loole mooy objectif bi ëpp sax ay milliards ngir xeex li nga xamante ni euh, moo di euh, coronavirus bi parce que c'est un combat mondial Sénégal nag euh, di ci dox bu baax ba ñoom kilifa yooyu la nga xam ni ràññee nañu leen ci secteur privé bi ku ci nekk dugal nga ci sa loxo ñii 10 millions ñii vingt millions léegi nii rek ci nuyoo loxoom laa njëkk jot ma fàttaliwaat leen ko maa ngi xaar yeneen yeneen i loxo nag voilà bu amee ñeneen ñu mën a dugal seen loxo ci combat bi n'attendez pas maa ngi leen di xaar donc à tout moment et en temps réel some bu ma jot rek naa ko annoncé ci télé bi euh, bu ko defee euh, ñu mën koo jébbal ministère des finances barki Dembo Ndiaye ministère de la santé ministre de la santé et de l'action sociale euh, Diouf Sarr mi nga xamante ni ñu ngi koy encouragé di ñaan suñu borom taxawu ko ci combat bi nga xamee ni ànd na ci ak ay scientifique ak ay borom xam-xam tous les matins bu 10 heures jotee mu taxaw ci télé bi ñëpp tiit mu wax. Euh, lim yi ak euh, fan la bilan bi toll mu ngi préciser ni désormais euh, xaalis yi nga xamante ni ñoo ngi koy joxe ak dons yi nanu ko yóbbu ministère des finances loolu itam defe naa dégg nanu ko moom ñu ngi koy gërëm bu baax di ko encourager te ñaan suñu borom jàppale ko ci combat bi bu fekkee possible na xam naa ni nelawatul dinañ ko jéem a woo ndax moom it digle na télétravail te ñun ñu ngi koy respecter donc on essaiera de le retrouver euh, là où il parce que bu crise amee euh, ñoom kilifa yi d'habitude du ñuy nekk seeni biir kër euh, moom Diouf saar ñu ngi koy encouragé bu baax euh, donc ma fàttaliwaat leen ni loxo bi ma njëkk a jot tey ci guddi gi mu ngi toll ci cent million keroog bëgg naa ba ni bu fi yemoon sax mu neex waaye bëgguma sax mu yem fi ndax bëgg naa xaalis bi gën yokku ba nga xamee ni du ñu soxla sax ay aides yu jóge bitim réew ndax aide yooyu le yenn saa yi euh, mu jur ay polémique yu doy waar yoo xamante ne ñun sénégalais yi duñu ko comprendre keroog nee naa leen àddina bi euh, damaa ragal ñu dem ba toll ci li wolof di wax naan lu golo xam na bootee doomam ndax boo demee dëkk bu mel ni Amérique euh, Donald Trump moom yàgg na woote Amérique first fi mu toll tembe ay nawle américain am rek lay jàppale ci coronavirus bi. boo demee fu mel ni France Emmanuel Macron. français yi lay gën jàppale sànq rek maa ngi dégg ni waa Portugal non seulement euh, waa Portugal kese la ñuy jàppale waaye képp koo xamante ni déposé woon nga fa këyit euh, dinañ la euh, jox këyit goo xamante ni di nga mën a am ay soins donc ñoom it waa Portugal kese la ñuy jàppale moo tax ñun fii waa Sénégal képp koo xamante ni suñu borom baaxee na la doole poos nga mën a dimbale mën nga def ni Babacar Ngom mi nga xamante ni loxoom laa njëkk jot ma fàttaliwaat leen ko montant bi nga xamante ni joxe na ko mu ngi toll ci cent millions ñu ngi ko ci gërëm bu baax ñoom eh, eh, Babacar Ngom eh, bàyyi Kumba Babacar Kumba bi nga xamante ni maamam la ñu ko fayee Kumba Kaba Fay xam naa ni som bi bu ma ko toppee mën naa ko fee tagg fii ba fajar moom Babacar ngoom ndax lii rek la ñuy doyee kilifa yu mel ni Babacar Ngom di dugal seeni i yoxo wane seen bopp wane seen doole ci xeetuk combat yi nga xamante ni ay combat yu sensible la xam nga professeur Seydi tiitaluñu sax waaye ñun ñëpp a mu ngi ñuy xamal ni euh, bu ñu moyul lii ci ñag bi lay jëm te tey euh, toll nañu ci lu ëpp téeméer euh, ci ay cas yoo xamante ne am nañu ko ak coronavirus bi donc nu nu góorgóorlu balaa balaa ñuy toll foo xamante ni mën na doon. Euh, lu ñuy euh, jaaxal donc cent millions euh, mooy montant bi nga xamante ni moom laa njëkk a jot tey ci samedi bi à vingt deux heures cinquante six doyelu ma bu beneen loxo ma nee duggaat itam dinaa ko jël xeebu ma dix millions xeebu ma vingt millions xeebu ma sax deux cent millions donné et puis on va remettre au ministère des finances pour li nga xamante ni moom la ñuy tuddee daan corona on va retrouver d'autres personnalités euh, j'attends la régie euh, bu ko defee ñoom it euh, ñu wax ma kan la ñuy jokkool ki ma bëgg a jokkool nag léegi nii peut-être après tonton Mac ngeen préparé keneen kooku ràññee nañu ko bu baax nag mu nekk citoyenne du monde Adama Paris s'appelle-t-elle c'est une porte porteur de voix la moom Adama Paris gëj nañu ko gis def na Fashion Week ba tàyyi fii ci Dakar def na Fashion Week Amérique def na Fashion Week France participer na euh, ci euh, respect wu der bu ñuul et que actuellement Euh, der bu ñuul euh, euh, lu ñu respecté la grace ak ay nit yu mel ni Adama Paris Adama Paris ñu ngi lay nuyu merci d'être resté chez toi fi mu ne confinement la tudd xaw ma toog sa kër mais metti na heureusement ba yéen personnalité yi nangul ngeen ñiw ñu dugg seen ay biir kër seen intimité seen i néeg seeni i parce que l'heure est grave lépp rek ci sensibilisation maa ngi lay nuyu Adama Paris et que actuellement je reste convaincu que yaa ngi reetaan mais paniqué ñoom ñëpp euh, ci euh, coronavirus bi nii mu tojee àdduna bi Adama maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay non reetaan bi sourire bi pour yow la ndax dama la namm. mais ma gis la ci télé bi kontaan ci trop. mais maa la raw maa la raw Adama je t'entends pas je t'entends pas dégguma la bu baax est-ce que peut-être mën nga defaraat euh, téléphone bi bu ko defee wax ji gën a mun a leer. ah xaaral ma ma ma yokk son bi. voilà yokkal son bi tuuti comme ça ñu mën la euh, ñu mën la dégg merci d'être resté chez toi ça fait longtemps qu'on s'est pas vu mais je suis content bu doon sama sago dañu gisante waat ci situation yi ne mais bon. Euh, fi réew mi toll ak euh, fi coronavirus bi toll il faut que ñuy waxtaan ak ñu mel nii yéen tey yow bokk nga ci kilifa yi jaaxle. waaw torop mais comme ñun ñëpp je pense que situation bi moom ku ci jaaxlewul doo jaaxleeti. Euh, dégg naa li Kumba sama sœur wax. Mhm. lépp dëgg la euh, vraiment Sénégal dañoo war a gëm ne lii am na. Mhm. dañoo war a gëm ne lii am na te gëm ne euh, lu koy saafara rek mooy toog suñu kër at fagaru at raxasu ñi mënut a toog raxasu ñi mënut a bañ ñàkk liggéey di sol masque di protéger seen bopp pour protéger aussi seen famille. voilà mais Adama masque euh, mu ngi bëgg a manqué euh, ci dëkk yi mu am par exemple comme Sénégal tey gis naa kenn koo xamante ni dafa dugg ci benn pharmacie ñu ne ko masque bi ñu ngi koy jaayee benn mille euh, ci loo xamante ni daanaka juróom fukk rek lañ ko doon jaayee dem nañu ba ci dëkk yi actuellement dañoo am problème mu masque mais yow nag li tax ma woola la ci créatrice bi nga nekk il paraît que da ngay créer di ñaw ay masques yoo xamante ni loolu mooy sa soutien ci xeex bi ñuy xeex coronavirus bi Adama Paris waaw dëgg la loolu am na depuis le 19 la ñu commencé arrêté suñu production yëpp. pour leneen c'est euh, léegi di defar euh, masque yi. Euh, di ko distribuer gratuitement néew doole yi. très bien. di dem surtout ci arrêt bus yi parce que man ñoo ñoo ma gën a tiital. c'est bien ça parce que dañuy jël bus bi donte sax léegi feesatul dell mais ki ngay dendal quand même ay centimètres rek la. Euh, xam nga loxo moom dañ koy raxas mais lu dugg ci bakkan ak gémmiñ xëy na c'est trop tard léegi loolu moo tax ma décidé def loolu noonu euh, di ko distribuer chaque jour ñu dem macha allah lu ñu ñaw rek cinq cent mille dem distribuer ko voilà faudra être très prudent parce que période bi ñu nekk lépp lu waay di def euh, na ko euh, teg ci yoon selon règles yi nga xamante ni euh, scientifique yi docteurs yi borom xam-xam yi waa OMS joxe na nañu ko alors yow jàng nga def nga tour di monde defe naa xam nga exactement naka la àdduna di doxee est-ce que masque yi ci liggéey bi ngeen koy liggéey euh, yéen a ngi bàyyi xel ci euh, baax na wala baaxul am na sécurité euh, ci tubaab tuddee homologué xaw ma naka la ñu koy waxee parce que barki démb rek chloroquine bi jur na polémique mais est-ce que mask yi itam respecté nga mm-hmm. norme yi Mhm. loolu alors dama bëgg a euh, spécifier ne masque yi du masque médical. d'accord masque yi pour jàppale que ils à quatre vingt pour cent euh, ils protègent à quatre vingt pour cent des microbes des bactéries. ça protège quand euh, ku nekk hôpital da koy sol muy cent en fait c'est juste pour limiter la casse. tere na benn nit tisooli sa si sa kaw. mu mhm. dal la. sa protège quand même wala ci poussière bi donc on n'a pas prétention defar masque chirurgical wala mhm. masque docteur. Mhm. il faut que loolu tamit ñu wax ko bu baax mais dañu jàppale rek néew yi doole yi comme li nga wax rek masque même ci mbedd mi léegi danga doon gis masque cent franc xaw ma deux cent wala cinq cent léegi day dem ba deux mille. te te te lii masque yi sunu masque yi tamit euh, aussi coton la te mën ma ko raxas. mën nga dem raxas ko sa omo at sa eau de javel. Mhm. réutiliser ko. Mhm. mu efficace en tout cas pour protéger la. voilà ça protège quand même en tout cas initiative yu am solo la euh, ñun ñu ngi koy euh, ñu ngi koy euh, ñu ngi koy rafetlu xam nga dañoo xaw a ragal nag moo tax léegi ñun sax buñ dee wax suñu direction bi daf ñuy imposer man balaa may ñëw lépp lu ma war a nettali ci télé bi ci coronavirus bi dama leen koy envoyé ñu valider ko ak ay spécialistes parce que actuellement l'heure grave lépp dafa war a tënku ci ay xalaatuk spécialiste parce que télévision dafa sensible gis nga ni actuellement nous consommer ñu ngi consommer lu ne Euh, ci whatsapp yi euh, ci facebook yi am na ñu ne domoda day faj coronavirus am na ñu ne boulette da koy faj am na ñu ne banaana da koy faj keroog bi ñu ne laaj day faj coronavirus dégg naa euh, dëkk bu mel ni Tunisie dañoo amoon pénurie de laaj donc ñun bëgguñu dundu xeetu jafe-jafe yooyu noonu mais heureusement ba ay nit yu mel ni yéen jóg ngeen ak ay initiative yu am solo est-ce que fi mu tollu tembe pare ngeen Euh, euh, pour euh, def yeneen par exemple joxe xaalis joxe ay solutions hydroalcooliques ngir jàppale gouvernement bi ci xeexu coronavirus bi Adama. xam nga man li ma yaa li ma gëm mooy comme li Kumba wax gis nga ku nekk ndimbal du ndaw. Mhm. te nit waroo xaar ñu lay oo loo xam yaa ko bokk nit ñi. Mhm. donc du maye xaalis rek. mooy defar corona bi je pense que action yi kañ ñuy def ba pare sama sœur tamit moom bëgg ko cee remercier sama sœur Mame Fa Gueye di créatrice tamit ñëw fekk ma si jëm ak ci jàppale euh, mu gën if gën a bëri euh, loolu am na solo parce que euh, ku mënul def lii war nga mën a def lele man mhm. nag man xam nga ma bëgguma wax ci li may maye daal ak li may joxe je pense que bëgguma ñu wax ko ci télé bi mhm. mais lii nii lii nii lu tax ma sawar ñu wax ko ci télé bi parce que gis nga tailleur bu toog sa kër wala nga toog géejawaay wala nga toog pikin mun nga jël ñaw sa masque nga jox sa sœur nga jox sa ay doom ñuy ñuy foca ñuy foca kër ga mhm. wala euh, ku mun a ta ñàkk ku mun a vraiment toogul sa kër mhm. ngay liggéey di dugg ci transport commun yi mun nga ko protéger sa euh, sa kanam Euh, ci le minimum donc pour lii nii ñu def nii pour surtout euh, joxe exemple parce que ñun tamit dañ ko gis ah. dañ ko gis man dama ko seetaan gis ay ñoom LVMH ay grands groupes yi arrêté seen production di produire ay masques ah. donc du loo xamante dama ko créer dama hmm. ko gis ñeneen ñu ko def moo tax ma ñëw tamit ne dinaa ko jàppale sama mbokk sénégalais yi parce que ça protège quand ma ko jàppale hmm. Hmm. donc c' important pour ñu joxe exemple. waaw loo xamante ne loo xamante ne am na gest yoo xamante ne soxlawoo alal soxlawoo xaalis wo dara. mun nga mm. ko def euh, nga toog sa quartier am sa benn petit affaire bu ndaw. Mm. nga def ko ñëw ko te lu ñuy fóot la lu ñuy fete la loo xamante ne yomb na utilisation te ñun euh, Sénégalais ak suñu mbokk yi déw di doole yi mun nañ ko protéger seen bopp chaque jour ñuy dem di liggéey euh, leneen yi nag wax rek comme li li sama sister wax toog leen seen kër. voilà na ñëpp toog seen kër na ñëpp toog leen seen kër. nous on s'occupe du rest billaay le on laisse les papes chers là aller prendre les risques pour nous. aller nous donner l'information. voilà mais heureusement bu crise bi passé dinaa am prime de risque. ah ay yow yoo xam nga Youssou du noonu mais surtout aussi remercier le personnel soignant de notre pays. surtout remercier surtout. tous ces gens là qui vont. au j'ai un message important pour ñoom sax. remercier dañ leen di fàtte remercier infirmiers yi. docteurs yi. Mm. sages-femmes yi ñëpp ñu mobiliser. pour feebar bi bañ ñoo wax la remercier tamit yéen ñiy jàpp di jógee seen kër yi di dem ci ci tali bi. Euh, pour ñëw ci seen studio yi voilà woon lan moo xew ci àdduna bi vraiment merci beaucoup à vous tous le le corps hospitalier et les les professionnels de de la communication merci Adama je t'embrasse très fort yàlla boo coronavirus mooy ñaan bi nga xamante ni moom la ñuy ñaanal ñëpp et puis reste chez toi toogal sa kër bul génn yàlla baax na ñu ngi lay gërëm bu baax merci Adama Paris donc personnalité yëpp ils sont en mode télétravail ak ñun en direct tey ci télévision Futur Média restez chez vous nous on s'occupe du reste exactement 23h06 mooy dooga jot jot guddeegul parce que yéen ñëpp euh, depuis vingt heures dugg ngeen seen i biir kër je rappelle encore bu dee da ngeen dëkk ak ay mag euh, xam nga euh, bu dee dëkk tubaab yi ñoom daanaka du ñuy far di dëkk ak mag bu ñu demee ba nit am yenn âge soit dañ lay yóbbu ci maison de retraite wala da ngay gis mag sax boo xamante ni moom kottooy dëkk du am jarbaat du am doom ñun nag xamuñu loolu dañuy dëkk ak sunu ay mag da ngay dugg ci kër fekk fa maam fekk fa maamaat fekk fa jarbaat fekk fa ñëpp ci biir kër yi mag ñi euh, dañ ciy fragile lool euh, ci li nga xamante ni moo di coronavirus bi nañu protéger suñu mag yi euh, protéger leen seniors yi ni ngeen leen di protéger bu dee da ngeen dëkk ak maam dëkk ak mag mooy ñoom jarul ñuy def yenn activités yu bëri yi jarul ñuy déplacé wu bu ñuy génn lu bëri bu dee dafa am yu ñu war a def nañu leen ko defal bàyyi leen ci biir néeg yi jox leen seen ay télé ji leen teral ak lekk yi ñu bëgg ñi nga xamante ni ñooy suivre ay traitement par exemple nekk asthmatique euh, paraît-il selon boroom xam-xam yi parce que ñun on ne parle jamais euh, sans l'avis des spécialistes ñoom itam ils sont sensibles euh, si vous avez de grandes personnes wala ay xale yoo xamante ni ñu ngi suivre ay traitements yu jëm ci xeetuk feebaru dënn asthme ak ñoom seen mënuma lim feebar yëpp ndax xaw ma ci lu bëri waaye dégg naa rek docteurs yi di wax ni nanu leen gëntee ci kër yi jarul sax ñuy génn lu bëri ku ci am farata boo xamee ni mënta ñàkk ba mënta ñàkk mën nga yónnee jarbaatu wala sët euh, mu dem euh, lijjantil la ko donc loolu itam message la bu am solo boo xamante ni fan yëpp maa ngi koy dégg euh, ci spécialiste yi yi fale ma baaxee leen ko loxo bi ma njëkk jot ma fàttaliwaat leen ko tey ci samedi bi mu ngi tollu ci cent million jóge ci Babacar Ngom mi may gërëm gërëm gu amul app du ma doyal xeebu ma beneen loxo lu ñëw ma jël ci li nga xamante ni moo jëm ci combat bi li nga xam ni c'est un combat mondial actuellement crise sanitaire la boo xamante ni demee fu mel ni Espagne bërki démb wan nañu leen ay images yoo xamante ni hôpitaux yi dafa fees ba nga xamee ni euh, nit ñi dañoo tëdd ci couloir yi euh, tëdd ci accueil yi nga xamee ni mënatuñu euh, hôpitaux yi mënatuñu contenir malade yi ñun ñu ngi wax di reetaan parce que qu'on doit vous accompagner quand même tey samedi la waaye wax dëgg yàlla ñun ñoo gën a jaaxle ñëpp et actuellement adduna bii bi yëpp dañoo paniqué ndax mënatuñu gere li nga xamante ni moo di coronavirus bi la nga xamee ni daanaka toj na àddina et que faites le maximum ngeen toog seen ay biir kër euh, même bu fekkee bëccëg bi am nañu liberté wu génn à partir de vingt heures la ñuy am couvre-feu euh, bëccëg bi ku ci doxul farata toogal euh, liggéey yi bu dee mën ngeen ko wàññi ngeen wàññi ko heureusement ba président décrété na ni désormais horaire de travail yi mu ngi toll ci diggante neuf heures jàpp quinze heures waaye yi mënta ñàkk nanu ko def yii mën a ñàkk Euh, ñu euh, ñàkkal ko donc loole euh, ñu ngi leen di fàttali ngeen bàyyi ci xel woykat yi ñoom ñëpp ñu ngi def ay sensibilisation Wally Seck am na woy boo xamante ni génne na ko dinañ leen ko wan en exclusivité dans quelques minutes ci télévision Futur Média mais d'abord j'aimerais peut-être bégalee leen ak papam moom Wally papam Thione Ballago Seck nga xamee ni c'est un grand parolier c'est un maître yàgg naa wax ni nit du dara am na ay woy yu am solo yoo xamante ni woy na ko euh, jëmale ko ci euh, sensibilisation ci wàllu feebar waxtaan ak askan wi ñoom seen woy yi euh, ay at ci ginnaaw la ñu ko woyoon waaye ci jamono yii loo ci teg rek dina am lu mu méngool ku mel ni Youssou Ndour par exemple foo laal lu xew ci loo dugg rek am na woyam boo xamante ni méngoo na ak euh, jamono Thione Seck mel noonu euh, moo tax ñu bëggoon leen tegal ab woy boo xamante ni woyoon na ko il y a très longtemps ça nous rappelle quand même beaucoup de souvenirs tali bi la ko tuddee euh, daanaka vide ñu bëri bu ñu waree ñibbi dañuy am problème mu transport waaye ñi nekk ci oto yi itam bu ñu dee daw nanuy daw ndànk rek loolee message de bu am solo boo xamante ni rappelez-vous à l'époque Thione Seck na ko c'est vrai que woy la boo xamante ni daf ñuy fàttali yu bëri mën nañu leen ko tegal et puis bu ca kanamee on mettra en exclusivité euh, vidéo bu bees bi nga xamante ni Wally Seck def na ko d'ailleurs wali sekk sax on le retrouvera euh, chez lui euh, moom actuellement mu ngi toog mu ngi toog këram toog na këram ana Wally voilà Euh, sama rakk jaa ngi këram euh, Wally Seck merci d'être resté chez toi on va te retrouver là-bas dans quelques minutes euh, bu ko defee ñu waxtaan ak yow mais d'abord dama bëggoon tegal téléspectateurs yi ci wéttal bi rek sa benn woyu papa bu yàgg boo xamante ni mën nañu fàttali ay affaire donc puisqu'on est nostalgique nañu seetaan Papa Thione doog a dem directement fekk Wally sekk këram voilà lii yëpp ay woyu wétal la euh, moo tax ñu boole ko ci euh, sélection bi yenn saa yi da ngay jaaxle euh, ba woyu yàgg yi rek ñoo lay mën a wétali sa xel di dal ngay fàtte crise bi mais actuellement crise bi toll na foo xamante ni ñëpp a jaaxle personnalité yëpp jaaxle nañu ñoom ñëpp a toog seen ay biir kër toog leen seen kër ñun li ci des ñoo ko res loolooy baatu bi baat bi ma bëgg ngeen bàyyi ci xel ci guddi gi restez chez vous nous on s'occupe du reste Wally Seck toog na nga këram euh, maa ngi lay nuyu sama rakk ji di la euh, massawu parce que yow tamit boobu ba tey euh, noppalikuwuloo benn yoon Instagram Facebook live partout yaa nga fa di sensibiliser malheureusement programme yi nga amoon yëpp Sénégal wala bitim réew nga annulé ko ndax coronavirus bi muy pertement ci xaalis ci sa liggéey ak sa personnel yow ak ñi ngay àndal ci liggéey bi mais jar na ko parce que fi mu tollu tembe wali l'heure grave mooy li ñëpp yi wax feebar bi jéggi na dayo xeetu jéggi dayoo boo xamante ni yow sax defe naa jaaxle nga ci. waaw Pape maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu ñu seetaan ñëpp à la TFM. Mhm. Euh, euh, l'heure euh, na ci kër yi. Mhm. vraiment dañuy koy jéem ak philosophie. Mhm. Ah, ak ak ak dal. ak digle yi nga xamante ni yaakaar na ni buñ ko defee gannaaw bu yàlla bu yàlla nangoo dinañ ci mucc. Mhm. vraiment ci la ñu ni nii. Mhm. mais vraiment euh, euh, euh, le monde va mal. <laughs> le monde va ba mu jaral leen yéen ngeen annulé seen ay tournée annulé seen ay concert annulé seen ay spectacle euh, tey yow en tant que jeune personnalité porteur de voix euh, ni situation bi demee fan yëpp bi crise bi tàmbalee fii ci Sénégal euh, lan nga am envie wax sénégalais yu waale. waaw ñaanal leen jàmm avant tout di leen wax ñu suudewu ñu gën a jàppalante ah li jëm ci côté solidarité ah bu jàppale sa morom aider son prochain c' est très très important. Mm-hmm. Euh, di leen wax jërëjëf aussi parce que Pape seetlu naa ne bi affaire bi amee. Mm-hmm. fu ñu teg Wally Seck dina am orage bu am dayo mm-hmm. ah bu demee télévision ñëpp koy seetaanandoo su noonu aussi xam nga émission bu amee Wally ñëpp ay concentré ni man euh, euh, dafa lu ma xam. te yàlla xam na ni xamuma dara. mais wéetal nga wéetal nga. pour public bi donc ma koy gërëmee Sénégalais yi. vraiment mhm. ma ngi leen bu baax a baax. Mhm. di ñaan jàmm sax fi lool lool lool te di xamal ni incha allah dina fi jóg. incha allah dina fi jóg. incha allah keroog bi feebar bi dugg see rek bokk nga euh, ci ñi njëkk a jóg génne montant dugal ko ngir jàppale gouvernement bi euh, ci xeexu coronavirus bi loolu itam xaaruloo kenn wax la da jóg dugal sa loxo ci euh, euh, combat bi muy lu am solo loo xamante ni ñu ngi la ciy gërëm mën nga ci wax tuuti aussi. waaw maa ngi lay sant bu baax ci loolu parce que aussi euh, yàlla dafa dogal ñun on est exposé. Mm-hmm. maanaam suñu lépp dafa ne ci biti. Mm-hmm. alors yàlla dafa dogal à chaque fois ñu ngi nekk en communication ak population bi. Mm-hmm. ah ñii ñu ngi ñu jege ñii ñu mhm. ngi ñu sori mais ñu ngi communiquer. Mhm. à travers suñu liggéey. Mhm. donc bu yàlla dogalee ñoom tamit seen ñàq di ñëw suñu tout le temps. parce que ñun musique mooy suñu gagne-pain. ñu am seen yéene di ñu defal di ñu jàppale. donc ñoom bu ñu soxlaa ñun ñoo war a njëkk taxaw. ñun artiste. alors yéen artistes yi d'habitude da ngeen di génn li ngeen di toog ci kër yi peut-être du bëri guddi gi samedi soir d'habitude heure bi daan na la fekk vogue wala euh, wala penc mi naka ngeen di dundee couvre-feu bi confinement bi toog seen ay biir kër naka nga koy dundee yow personnellement par exemple. waaw je le vis parce que je suis entouré. ah je suis bien entouré maa ngi nekk ak sumay waa kër. ah toog di ataaya di kaf di waxtaan. Mhm. mais euh, euh, c'est pas facile parce que ku ne xam na ni booy. tàmmi activité ak liggéey guddi. su mhm. arrêté du tax nga nelaw. Mhm. a ah, ah, su amee du tax nga nelaw. Mhm. donc man nelaw guddi moom amatuma ko yàlla doon la dogal. guddi gi day gën a guddi ci yow. waa day gën a guddi parce que parce que tàmmatuloo ko quoi. <laughs> waaw récréation bi laa ko tuddee récréation. la parce que li coronavirus rek. coronavirus mais léegi bi ñu war a génn bëccëg moom laa récréation. récréation waaw ah, c'est vrai que bëccëg bi mooy récréation bi. alors ah, euh, man man sama heure dafay gàtt parce que damay naajee ah. <laughs> man sama heure dafay gàtt parce que damay naajee yeewu. waaw da ngay naajee yeewu donc tuuti heure ngay am diggante heure bi nga yeewu ak vingt dafay jege parce que à partir de vingt moom ku génn rek alkaati yi mën nañ laa liife alors euh, ci ci ci sa combat ba tey bu weesoo euh, xaalis bi nga joxe daf la jaral nga fentu way uniquement pour sensibiliser sénégalais yi. waaw. pent naa morceau maag suma équipe. Mhm. du ma wax sax man maag équipe parce que lu ci bëri ñoom ñoo koy def ah pour euh, à la demande des di ci gërëm bu baax a baax de passage monsieur Tunkara. Mhm. di nga xamante ni dafa insister pour à ce que ma woy morceau bi. Mhm. donc euh, j' espère que dégg na ko. Ah, ah, ma ma génne ko pour sénégalais yi ah, ci xel comme nee nañu. su ma woyee dinañu dégg. Mhm. ma profito ci rek yàlla dogal na je suis le macha allah. waaw xam nga su ma ma ma ma jox leen ko rek ñu ñu daal di ci jafandu parce que loolu rek laa mën mënal jamono ji ah su ma doon médecin yàlla xam na ni kenn du ma jiitu ci hôpitaux yi. wallaahi wallaahi wallaahi. man naturellement. Euh, sax loolu kenn di ma ko waxal balaa nit di fier ci yow. Mhm. yaa war a njëkk fier ci sa bopp. nit day xam boppam waaye man xam naa ñi sama xol bi ah, jàmm rek la laaj. Mhm. clip bi euh, mu ngi doog a génn j'aimerais ñu seetaanandoo ko fi nga toog noonu sa kër fi ma toog ak sénégalais yi toog seen ay biir kër euh, ñu seetaanandoo ko ensemble regardez et c'est en exclusivité ci télévision Futur Média. la c'est vrai que baat bi benn la toog leen seen kër nga dajale ay euh, personnalité euh, ngir euh, message bu am solo bi jëm ci xeex coronavirus bi c'est tellement bien fait li ma am envie wax la rek mooy félicitation nit ku siiw wala am baat lii rek la ko dëkkam di doyee bu la sa réew soxlaa nga jóg taxaw dugal sa loxo Euh, def ci xaalis mais en même temps génne woy wu mel nii nga xamante ni clip bi euh, mu ngi doog a génne et puis c'est tellement bien réalisé ñu la ciy félicité bu baax lii message la bu am solo boo xamante ni euh, tey bu ñu demee ba crise bi passé mën ngaa fier ci yow ni defoon naa lii ngir xeex coronavirus bi Wally merci beaucoup Pape Cheikh merci merci beaucoup jërëjëf jërëjëf ci bi nga ko waxee parce que xam naa ni su weesoo sa liggéey yàlla dogal na am nga melo maan nga donc mm. soo ne c'est bien rek alhamdulilah macha allah mu ngoog donc way la bu nar a jàll en boucle ci télévision Futur Média merci du ma la téye lu yàgg parce que xam naa yi nga war a def bëri na euh, tey euh, ban message ngay euh, jox sénégalais yi pour finir comme yaa toog sa kër. waaw balaa may jàllale message bi dama bëggoon rek nga permettre ma ma remercier ñi nga xamante ni participer nañ ci vidéo bi. Mhm. waaw te yàlla dogal yàlla dogal na ni ñu ci bëri jotu ma téléphone sax. effectivement sama staff rek ñoo waaw ah, maa ngi koy tàmbalee ci yow moom Pape Cheikh. c'est normal. maa ngi lay gërëm di gërëm papa Ismaïla mhm. sama papa Bouba Ndour. mag sama xarit sama goro Bougane Gueye. Mhm. Ah, di gërëm bu baax Mamadou Ibra Kane. Mhm. Alassane Samba Diop. Alassane. Khalifa Diakhaté. Khalifa. Père Bekay. Alaaji ah, di gërëm bu baax a baax Birane bi nga xamante ni oyofal nañu lépp. c'est normal. ah Mamadou. mbay ñu koy gërëm bu bekkay mbay aba ah monsieur le ministre Abdoulaye Diop maa ngi koy gërëm bu baax nga xamante ni mooy suñu président Macky ñun ñun mm-hmm. waykat yi mm-hmm. parce que mooy suñu ministre tutelle ñu ngi koy gërëm bu baax a baax mm-hmm. Abdoulaye Diouf Sarr maa ngi koy gërëm di ko wax euh, courage ministre de la santé ah, waaw Pepsi ah, euh, Louras Modulo Ndiaga Oro toute la famille toute l'équipe maa ngi leen di gërëm bu baax merci waaw yow tamit kontaan nañu Sénégal yi merci beaucoup sénégalais li ma leen di wax rek mooy nañu yokk ñaan yi ah. ah. te ñuy balante ak te jàppalante ah te te te may ñaan képp kuy sénégalais. Mhm. boo nekkee fii ci sa télévision di seetaan TFM. Mhm. nga salu nga saluer ah, ah, li nga xamante ni mooy innovation bii ñu def. Mhm. lii jéggi na dayo lii rafet na trop. ma nekk sama kër nii nga may dégg cinq sur cinq. c'est normal. am benn dagg. lépp normal ah macha allah ñu ngi leen di gërëm di leen wax euh, euh, félicitation. di wax tamit sénégalais euh, papa Cheikh nañ ma ñaanal gudd fan ak wér. yàlla baax na di nga am di nga gudd fan di nga wér. incha allah moom laay wax ñu ñaanal ma ko ñaanal ko képp kuy jullit képp kuy sénégalais. incha allah incha allah. kontaan naa sama euh, rakk ji yal na yàlla sàmm la et puis continue euh, di euh, jàpp ci combat yu mel nii nga xamante ni bu ko dëkk amee day baax ñu mel ni yéen ngeen jóg donc ay xale ay porteurs de voix chanteurs du peuple et il a fait une belle chanson Wally Seck ñu ngi koy gërëm toog na këram fekk nañu ko fa yéen tamit toog leen seen ay kër li ci des ñun ñoo ko des restez chez vous nous s'occupe du rest loolu mooy leitmotiv bi tey ci guddi gi ci télévision Futur Média léegi nag damay vérifier waat encore ndax jotaat na ma loxo nag maa ngi wax ni euh, lu ma jot nag euh, ci ay loxo du doy euh, ndax combat bi combat wu ñëpp la donc là euh, j'aimerais euh, euh, vérifier est-ce que amaat na xaalis bu dugg ci combat bi nga xamante ni mooy combat bi ñu tuddee daan coronavirus muy mobilisation boo xam ne ñun ñëpp def nañu ko ci télévision Futur Média àndandoo ak kilifa yi àndandoo ak secteur privé bi àndandoo ak ñi nga xamante ni suñu borom baaxee na leen lu nu mën a dimbalee keneen alors sànq jot nañu montant bu toll ci cent millions jóge ci. Euh, Babacar Ngom ñu ko ci gërëm bu baax léegi nii jotaat naa beneen euh, enveloppe beneen somme euh, boo xamante ni mu ngi jóge ci Sagar Gueye Sagar Gueye nag xam naa miinu leen ko mais opérateur économique la mu ngi bokk UNACOIS donc moom bi mu déggee woote bi joxe na loxo bu toll ci 10 millions fukki millions yoo xamante ni mu ngi jóge ci Sagar Gueye opérateur économique euh, membre UNACOIS euh, ñu ko ci gërëm bu baax ci loolee nga xamee ni euh, def na ko bu amee beneen loxo bu ñëw itam itam dinaa ko jël je serai preneur comme disent certains Euh, donc euh, loolee euh, maa ngi ciy kontaan di ko ci gërëm bu baax moom mi nga xamante ni mooy Sagar Gueye donc joxe 10 millions am na beneen montant bu ñu may annoncé mu ngi jógee ci ku baax ku tudd Kabou Gueye Kabou Gueye bu SDE voilà ku ko xamul dégg na ko di ku yàlla baaxal euh, Kabou Gueye bu SDE moom itam euh, teg na euh, tey ci guddi gi yónnee na montant bu toll ci dix million donc Kabou Gueye ñu ngi ko ci gërëm bu baax ci dix millions yi nga xamante ni moom la teg léegi nii ci table ji dix million yoo xam ni fekk na benn dix million bu sagar fekk itam million bu jóge ci Babacar Ngom am na itam beneen montant euh, bu ñu may signaler léegi nii montant bu takku la mu ngi jógee euh, ci euh, Léo Léopold Ngom bu Sertem voilà Sertem Léopold Ngom bu Sertem joxe na montant bu takku montant bu takku mu ngi tollu ci trente million waaw te duma ma doyal de alors trente millions donc moom mu ngi bokk. Kines voilà Kines la bokk c'est-à-dire li ma leen di wax yëpp dama koy jot en même temps man ak yéen ñoo koy jotandoo ñooy jotandoo information yi ñooy jotandoo euh, euh, nit ku baax ki euh, yónnee xaalis bi ñooy jotandoo montant bi donc en même temps et en temps réel laa leen koy joxe donc Léopold Ngom ñu ngi koy gërëm bu baax ndax lii mu teg somme la 30 millions ci jàpp ci combat Euh, li nga xamante ni moo di euh, coronavirus bi donc j'aimerais laisser le soin aux équipes euh, techniques ci ginnaaw ñu calculel ma ci ñaata lay toll ma fàttaliwaat leen ni montant bu njëkk bi dugg tey mu ngi toll ci cent millions je suis content tegaat nañ ci beneen vingt millions bu jógee ci Sagar Gueye astafurla 10 millions bu jógee ci Sagar Gueye opérateur économique ak beneen 10 millions boo xamante ni moo ngi jóge ci beneen ngëyeen muy Kabou Gueye ak trente million boo xamee ni léegi lay doog a yegg si euh, donc en attendant euh, ñu koy calculer ci ginnaaw bay recevoiraat itam yeneen i yeneen i loxo euh, damay préparer. Euh, fekkiwaat beneen personnalité këram merci d'être resté chez toi xam nga euh, d'habitude en temps normal invité d'honneur wala émission wu samedi soir yi euh, da ngeen di gis ni artistes yi yeeg woykat yi dañ leen di invité ak public waaye ñun waruñu def li tubaab tuddee exemple bu baaxul mauvais exemple la ñu koy wax xaw ma tey bu ñu demee ba ministère de la santé organisation mondiale de la santé ne dajaloo bi baaxatul Euh, boo toogee ak nit sa diggante ak moom war na toll ci un mètre yooyu yëpp dañu ko war di respecter te xam nga euh, télévision privée la ñu waaye dañoo am mission wu service public moo tax boobu ba tey ñu mobiliser wu di leen baaxee programme yi mënta ñàkk wéttal gi nag tey daanaka mën nañ cee dem ba ca kanam euh, ci télévision Futur Média li ñu leen di ñaan rek mooy même bu couvre-feu bi jeexee ca kanam 6 heures du matin ngeen wéy di toog seen ay biir kër heureusement suba dimanche la donc limite y presque rien à faire mbedd yi nu ko yégee suba ci dimanche bi euh, ngeen toog seen ay biir kër télévision Futur Média euh, dina euh, toppatoo li ci des ci wàllu wétal beneen personnalité bi ñuy waaj a dem seeti kooku nag fan yii yëpp mu ngi ñuy yónnee ay message ngir sensibiliser sénégalais yi yaay la yàgg na sensibiliser jigéen ñi ci ay combat gis ngeen ko nii muy ajaratu faatu géwél di suñu yaay di suñu xarit Euh, moom itam toog na këram euh, confinement bee tax kenn mënta dem benn woykat tëggatul annulé na lépp loo xamante ni amoon na ko comme concert tournée nationale bi nga xamante ni moom la waroon def annulé na ko euh, promotion bi nga xam ni waroon na ko def ci anniversaire bi muy waaj juin yooyu yëpp annulé na ko donc tey mu bégal ñu toog këram ajartu Fatou géwél Euh, est-ce que mën nga jege si euh, caméra bi tuuti euh, bu ko defee ñu mën laa gis bu baax jaxaran parce que loolu dafay bégal sa fans yi dafay bégal sénégalais yi dafay bégal xale yi dafay bégal mag ñi yow baat bi benn la Fatou géwél moo mën a sol lu yiw faatu Guewel moo rafet Fatou Guewel moo mën a sañse saa yoo génnee clip Sénégal yëpp kontaan bu doon sama sago du ñu toll ci crise bi mais malheureusement toll nañu fa coronavirus bi jaaxal na sax ku dul Fatou Guewel maa ngi lay nuyu ajot Fatou géwél di la ziar am mbégte lool fekk la sa biir kër. waaw Baye Cheikh maa ngi lay fay maa ngi lay fay. Mhm. maa ngi. Ah, voilà euh, mën nga dégloo mën nga dégloo directement ak téléphone bi bañ a dégloo ak télé bi parce que li may wax day jóge alma di euh, di ñëw ba sa kër temps bi day day day kii quoi day bëri. <laughs> waaw maa ngi lay fay Baye Cheikh. <laughs> Uh-huh. nuyu Sénégal yëpp. nuyu waa Sénégal yëpp. jërëjëf Diouf bu yeboo ma ne di nuyu waa àdduna bi yëpp. Mm-hmm. ndax TFM defe naa ne ci àdduna bi yëpp ñu ngi koy seetaan. dëgg la Diouf Mm-hmm. di nuyu waa Sénégal di nuyu waa télé bi mm-hmm. di ko dale ci sama mag yi su dul ci kaw ba ci suuf di nuyu waa Sénégal yépp mm-hmm. ku ci nekk di la masawu lii nga xamante ne nii yàlla suñu borom ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Muhammad sallallahu alayhi sant Seexul Xadim suñu wasila ñu ngi masawu waa Sénégal képp muy waa adduna yëpp waa adduna laay wax adduna yëpp ndax fi def naa ne loo xamante ne nii tubaab fakkal la macha allah. Mhm. yàlla da ko wàcc ci àdduna bi yëpp laay wax. Mhm. waaw. yëpp jaaxle yéen ñëpp itam ngeen jaaxle ba dakkal seen ay programme yëpp boobu ba tey yaa ngi sensibiliser euh, muy loo xamante ni euh, ñëpp a ngi koy rafetlu lan ngay xelal sénégale yi. surtout jigéen yi yaay yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir kër yi lan nga leen di diggal ban message nga leen di jox ngir ñu gën a mën a farlu euh, ci moytu coronavirus bi ajat Fatou waaw Baye Cheikh noonu nga ko waxee rek noonu la ñuy def mhm. di ko digal nit ñi mhm. di ko digal képp kuy jaboot di ko digal bi rek comme ni ko ministre de santé waxee muy Ablaye Diouf Sarr. Diouf Sarr président. ndax mhm. nit ñëpp tubaab kàlla macha allah. Mhm. muy set. Mhm. ni ma ko waxee ci loolu ma def. muy set. di raxasu ba set. di sangu ba set. di togg lu set. di nekk fu set. jël njaboot gi uuf leen. ndax bu ne rek xale yi jànguwuñu rek. ñu bàyyi leen ci mbedd yi nañ leen téye ci biir kër yi ñuy sangu ba set di raxas seeni loxo ba mu set bàyyi saafonte bi ku ne toog sa kër ne comme niñ ko bëggee comme niñ ko waxee ndax kat ku la ne sangul sa taar la bëgg mhm. la ne dem toogal ci sa biir kër ndax nga am wér wallaahi te boo amee am jàmm mhm. sa jàmm la la bëgg mhm. kon loolu ñu wax képp kuy nit mbaa nga doon nekk fii ci Sénégal danga koo war a topp ba mu jeex yaag sa njaboot ak képp koo am ba tax na ñun ñi nga xamante ni bu ñu waxee nit ñi dañuy déglu saa yu ñu ngi wax saa yu ñu xëyee ñu ngi wax bu ñu génnee ci télé bi ñu ngi wax bu ñu génnul ci télé bi ñu ngi wax bu nekkee ci suñuy téléphone ñu ngi wax ak doomu aadama yi di ñaan yàlla mi ko wàcce nag ci kàttanam mbaaxam na mu faj mu fajo yal na ko am na loo xamee ni am na loo xamante ni xam naa ko ci yow. Euh, muy euh, jaamu yàlla foo toll yenn saa yi ma tooñ la ne Fatou Gueye mii xanaa dañ koo seexal këpp këppal julli dem Makka umra ak ak yooyu yépp tey bu ñu demee ba euh, Kaaba gi sax dañ koo tëj. Euh, ne euh, euh, du ñu jege néegu néegu yàlla boobu ndax situation bi fi mu toll nga war a xam ne doy na waar donc consigne bi ak message bi dëgg la boroom xam-xam yaa ngi wax waaye defe naa ñaan itam am na solo ajot Fatou Gueye ku ci nekk fa nga nekk rek saa yoo jullee nga ñaanal Sénégal. waaw na ñëpp ñaan. Mhm. bu kenn xeeb. Mhm. ndax yàlla moo xam gémmiñ ngay nangu. Mhm. nee naa ne sëriñ si ñaan. na mag ñi ñaan ne kilifa aada yeeg kilifa diine yi ñëpp nañu ñaan mhm. góor jigéen mag ak ndaw ne ñëpp ñaan mhm. ndax tubaab fakkaala macha allah man bu ma taalee télé bi ba jàpp màkka bu ma xoolee kaaba bi sama àdduna yëpp dafay tukki wallaahi ne loo xamante ne nii saa yoo xayaan la fay nekk ci doomu aadama mhm. dina ëpp ay junni junni nit mhm. ñu dem ba tey feebar bii nga xam ne yàlla wàcc na ko ci àdduna bi mhm. tax ñu tëj kaaba yàlla boobu mhm. tëj nit nag rasul ga sallallahu alayhi wa du ay caaxaan wallaay du ay caaxaan loolu lu am la te dañ ko war a sàmmanteeg moom ba dàq ko mu dem ci dara yonent bi sallallahu alayhi waxee Mhm. yal na yàlla tàppe xol yi mu doon benn ñu boole xol xalaat yi mhm. ñaan yàlla yàlla dimbali ñu ci kàttanam ak mbaaxam waaye seex yàlla li mu ñun ñëpp ñoo ko moom li mu yor ñun rek la ko fi dencal mhm. te boo ko ñaanee mu may la ko sama waati waaw maa ngi lay maa ngi lay wan en même temps image wu sa euh, dëkk ba euh, di nag euh, dëkk boo xamante ni actuellement daanaka tëj nañu lépp et que aju pren bi sax dañu ko mujj annulé fii dëkk du ko gën a mag mais ndeysaan xam nga ñu kon loolu rëy na ndax daanaka limite fii mooy centre àdduna ajot Fatou Guewel wallaahi azim waaw waaw waaw fii mooy àdduna wallaahi tubaab fakkaar la macha allah. Mhm. man feebar bi du ma koy yëg feebar bi dafa am siin màkk laa ko yëge. yaa ngi woon màkk effectivement màkk feebar bi. effectivement yaa ngi feebar bi wàcc nii màkk laa ko yëge. effectivement tubaab fakkaar allah. Mhm. bi ma ñëwee aw ma fi vingt jours sax ci la ñu tëj. wallaahi. kon mu doon loo xamante ne nii. Mhm. Ah. yàlla nañu yàlla moom kay fi yàlla rek moo ñu mën a moo ñu mën a suturaal lan la lay def wax woykat yëpp presque dama leen koy laaj euh, euh, période yi dafay fekk ngeen bëri ay programme def ay tournée def ay concert euh, ku mel ni yow plus concert ngay def plus ngénte yi xew yi ak daje yi lan la lay def bu ñu demee ba nga war a toog sa kër rek noonu bàyyi activité yëpp. voilà apparemment euh, elle ne nous entend plus peut-être que c'est un problème de euh, réseau mais ñu ngi koy gërëm bu baax Adjatou Fatou Guèyeul peut-être loolu moo nekkoon sax dernière question bi euh, bëggoon naa xam ñoom naka la ñuy dundee couvre-feu beeg confinement bi ak li dara amatul benn programme amatul kenn ngénteetul kenn xewatul Euh, kenn dajalootul euh, te loolu ñoom euh, nekkul peut-être loo xamante ni seeni i arrangement la parce que mooy seen liggéey bëggoon naa xam naka la koy dundee mu ajot Fatou Guewel mais ñu ngi koy gërëm bu baax yaayu Bodi ak maam Khoudia. Uh, maam Khoudia yaayu Fatou Guewel mi ñu di pee maamam Kor As Ndiaye Bodi ak borom këram ñu ngi koy nuyu bu baax ak njabootu ajot fatu Guewel yëpp fatu Guewel boo demee këram wax naa ko léegi nii Euh, des fois da ngay am impression ni dañ koo seexal julli rek mooy métier macha allah peut-être yooyu yëpp du waxu télé euh, ndax vie privée la waaye baax na itam euh, ñuy xamale ak mbokk yi yenn yoo xamante ni peut-être xamuñu ko ci sunu nit yu siiw yi ñoom personnalité yi nga xamante ni ñoom la ñuy àndandool tey ñu leen di wettali à partir de seen ay biir kër donc na ñëpp toog ñoom toog nañu yéen tamit Euh, mën ngeen mën ngeen mën ngeen a toog seen ay biir kër bu ko defee li ci des euh, télévision Futur Média moo koy euh, mottali je rappelle encore que loxo bu ñëw ma jël cent millions ma jël vingt millions ma jël dix millions ma jël un million ma jël am na un million boo xamante ni jot na ma ko léegi mën na nañu ko annoncé je rappelle encore que montant yi may jot yëpp c'est des montants yoo xamante ni en temps réel laa koy recevoir te lu ma ci recevoir itam naa leen ko annoncé euh, bu ko defee ngeen xam ni euh, nit ñi euh, jóg nañu ngir jàpp ci li nga xamante ni mooy xeex coronavirus bi donc Saloum Ndiaye maa ngi koy ziar waaye ad voilà Abdoulaye Abdoulaye Fatim Dieng Abdoulaye Fatim Dieng moom joxe na un million ci turu Alsaax Touba mouvement bu àndandoo ak Mamadou Racine Sy Euh, donc euh, ñu ngi koy gërëm euh, Abdoulaye Fatim Dieng moom joxe na un million donc xeebu ma dara loxo bu ñëw ma jël dix millions ma jël vingt millions ma jël cent millions ma jël cinquante millions ma jël jël naa léegi ni cent millions bu jóge ci Babacar Ngom jël itam trente million bu wàcc léegi nii jël naa ci itam ñaari vingt mille ñaari dix millions yu wàcc ak benn un million buy doog a wàcc bu ma amaatee itam beneen loxo dinaa jël. il y a des artistes yu dëkkul Sénégal euh, ñoom tamit ils font des vidéos de sensibilisation un peu partout à travers le monde exemple bi ma leen bëgg a jox Euh, mooy Alpha Blondy xam nga Sénégal dëkku mélomane la que nga nekk sénégalais artiste sénégalais ou euh, sa ay woy que ñu comprendre paroles yi upa noo nous te ku ne xam na diggante Alpha Blondy ak euh, Sénégal bërki démb rek laata crise coronavirus bi ci la def mariage bu rëy ak soxnaam ñu ñun ñëpp ñu gis ko donc alaaji Alpha Blondy parce que daaw xaw ma daaw géej demoon na màkk xam naa ren nag du am lu ko neex parce que màkk boo fa demee benn yoon da ngay bëgg a delluwaat bu yëgee ni tëj nañu ko Euh, dina am lu ko naqari donc moom Alpha Blondy il a fait un message de sensibilisation concernant euh, cette crise du coronavirus on l'écoute bonjour à tous mes frères et à toutes mes sœurs du monde d'Afrique et d'ailleurs je voudrais vous parler du coronavirus c'est très très grave et c'est très très sérieux je vous demande à tous de respecter les consignes que le gouvernant respectif ont donné. Parce qu'ils sont comme vous et moi. Ils ne sont pas assez informés. Personne n'a le médicament. Les médecins qui doivent nous soigner sont désespérés. Il y a plus de 2 milliards de personnes confinées. Ça veut dire que les infirmiers, infirmières, il n'y en aura pas assez. Et pour le moment, ceux qui prétendent avoir des médicaments, ceux sur qui on compte sont en train de se discuter. Alors, je vais vous dire ceci, mes frères et mes sœurs. Ils ont dit, si tu veux tousser, tu fais comme ça. <coughs> tu tousses. Si tu veux éternuer, tu fais comme ça. Et tu éternues. Et si tu dois te moucher, prends euh, un papier et tu te mouches et après tu es sûr, si tu as une poubelle, tu mets là-dedans. Mon frère, si tu as un masque, porte-le. Si tu n'as pas de masque, c'est pas grave. Si tu as des gants, ok, porte-les. Ok, en attendant qu'ils finissent de discuter entre eux. Parce que même eux, ils ne connaissent pas. Parce que c'est une première mondiale. Je vous dire la vérité, c'est une guerre biologique. À la guerre comme à la guerre. On ne va pas dire que l'autre, on l'écoute parce que c'est l'autorité. Mais l'autorité ne maîtrise plus la situation. À nous de venir à l'aide aux uns et aux autres, et voire même aux autorités. Vous me comprenez Et je voudrais surtout que nous encourageons ces mains invisibles qui travaillent, qui sont au front, en première ligne, les infirmières, les nettoyeurs des salles, ceux qui vont nettoyer les rues, la police, euh, la gendarmerie, les militaires qui sont au front, eux aussi ont des familles. Eux aussi peuvent tomber malades. Euh, et puis donc quand on nous dit d'être disciplinés et de rester en place, c'est pour les aider à nous aider. Je vous en prie. J'ai cité, euh, j'ai oublié ceux qui viennent fournir les marchés en nourriture. ok, pour qu'on puisse tenir. Les gars, il y a plusieurs personnes que je n'ai pas citées. Mais toutes ces mains invisibles qui donnent leur vie pour que nous, on puisse survivre dans cette guerre, on a le devoir de les protéger en respectant les consignes de sécurité, de confinement. Donc, je compte sur vous. Si on vous dit de confiner, vous, je suis confiné à l'heure où je vous parle. Je me suis un peu habillé proprement pour vous parler. C'est une guerre contre l'invisible. Ceux qui ont la foi, qui sont des croyants, priez. Envoyez des vibrations positives. Ne paniquons pas, n'ayons pas peur, ne nous stressons pas. Parce que c'est beaucoup stressant. D'être là comme ça, on ne sait pas que faire. entre le, coup, le confinement et le couvre-feu, on ne sait pas. Alors, respectons ce qu'on dit, on ne sait jamais. Nous sommes la race de Dieu. Nous sommes plus forts que le démon. Vous m'avez compris Que vous soyez croyants, païens, athées, c'est pas grave. Vous êtes des frères à nous. Et cette guerre, nous la gagnerons. Soyons solidaires. euh, politique, je vous demanderai de dire la vérité si vous pouvez. Je sais que vous avez peur de créer la panique. Mais vous aussi, vous êtes malade. Parmi vous, il y a d'autres qui sont malades. Ce mal est planétaire. Ce, ce, cet ennemi est invisible. Mais il est visible par tout le dégât, tout le méfait qu'il fait. je vous demande du fond de mon cœur, peut-être que je ne serai pas là demain. Manu Dibango, le grand frère, est parti. D'autres sont partis. Des milliers sont partis. Et je voudrais que ceux qui vont suivre les consignes, qui pourraient s'avérer efficaces, pourront peut-être témoigner de notre passage sur Terre. Je compte sur vous. OK Et en tant que musulman, on dit la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Seul Dieu peut nous sauver et Dieu nous aidera. Allez. donc un message très important euh, qui nous vient donc euh, de euh, El Hadj Alpha Blondy. Il a été à la Mecque. Euh, il est entre Côte d'Ivoire et d'autres pays. Il fait partie des icônes de ce continent, un très grand artiste que nous apprécions ici, au Sénégal, donc qui nous euh, euh, parlait de ses conseils concernant cette lutte contre le coronavirus. Comme quoi l'heure est grave. Il n'y a pas que les Sénégalais qui sont en panique, même en Côte d'Ivoire. Loire actuellement euh, euh, l'heure est grave donc Alpha Blondy euh, lañ doon déglu moom mi nga xamante ni mu ngi fekk baax dëkk bu ñu naan Côte d'Ivoire moom tamit jaaxle na comme presque dëkk Afrique yëpp boo demee dëkkam comme Sénégal ñoom tamit actuellement dañu def couvre-feu moo tax wax na ko léegi nii xamuñu confinement wala couvre-feu donc loolu moo tax ñu war a góorgóorlu bu ñu tiit bu ñu stressé y a de quoi avoir peur nag y a de quoi paniquer mais wax dëgg yàlla Euh, bu nu góorloo rek solidaire euh, jàppalante suñu biir euh, te kenn ku ne defar sa xol ñu àndandoo ci sincérité dinañu mën a xeexandoo ak li nga xamante ni moo di coronavirus bi donc Alpha Blondy c'était son message ci lutte bi nga xamante ni moo jëm ci coronavirus bi ñu ndokkeel personnel de santé bi ñi nga xamante ni ñooy liggéey ci hôpitaux yi fan yii yëpp ñu ngi jot ay yóbbante ay nit yoo xamante ni ci ay hôpitaux la ñuy liggéeyee ñu ngi ñuy xamal ni ñoom par exemple am na ay jumtukaay yu ñu amul am na ci euh, ñu bëri euh, ñu ñuy xamal ni ñu ngi liggéey ñu ngi recevoir ay malade euh, mais amuñu sax masque loolu itam euh, message la boo xamante ni euh, peut-être ñi ñi dénk euh, wala ñu am doole war nañ cee jàpp bu ñu mënee ami masque ngir yóbbu ko ci ay hôpitaux hôpital Fann hôpital yi nga xamante ni ñoo nekk ci région yi ñu tuddee leen ay hôpital régional donc ñu ngi ñaan ngeen jàppale leen bu baax barki démb rek samedi dernier am na video ndeysaan bu exceptionnel bu ñu réalisé ci woyu Youssou Ndour bi la nga xamee ni ba ma koy woy yàgg na yëfi gaynde gaynde la ko woyoon donc fii ñu tollu tembe ñoom ñiy liggéey ci hôpitaux yi nous on les considère comme ay gaynde parce que ndam li euh, defe naa ci seen i loxo lay jógee euh, bu ngeen fàttalikoo ca kanam euh, jamono yi nga xamante ni Sénégal demoon na coupe du monde coupe d'Afrique ci loolee la ñu toll te actuellement sunu ay gaynde mooy ñi nga xamante ni ñooy liggéey ci hôpitaux yi docteur médecin aide soignant infirmier képp koo xamante ni yaa ngi liggéey ci hôpital yéen yéenay njëkk a jot malade yi donc yéen itam euh, daanaka seen liggéey bi dafa ànd ak risque moo tax ñun ñëpp nous sommes de tout cœur avec vous ñu ngi leen di soutenir defe naa lii nga xamee ni euh, yusu Ndour defal na leen ko samedi dernier mën nañu leen ko tegaatal mën na dalal dalal xel